xamoon ngeen ni cas su ma ne woon du si wax sax fu jaar ma wax si bi te séddoo ko yéen bi séddoo ko ma soog a wax li may wax ci su ma ne du ma wax sax fu wax si because nit ñaa ma topp rek booba tey but also du loolu moo tax ma de si wax jos kuy xeex pour jigéeni askan bi am jàmm may sa baay surtout ci mbiri sëy ak mbiri lépp luy toroxal jigéen lu ne te kaa bii yépp la xàndat waaye fa xam lu tax tëbu ma woon rek wax si danaa leeral loolu yéen laa xaar ngeen tapote vidéo bi xéegal ko thank you so much hello tapote leen vidéo bi yéegal ko may war a jóg tëddi sax du yàgg may jàngi suba tapote leen vidéo bi yéegal ko ma wax suma xalaat si kaa bi ji ngeen koy gis suma kanam gi ma sonn bon dafa important pour ma si kaa bi kaa bi xamoon ngeen ne danaa si wax maa ngi daw pour wax si because askan bi surtout askani Gàmbi saa bu kaa ñëwee lay des nit ñu bari fañ ciy dugg di ci duggee naa fekk wala di ci duggee ne um, lu tax kii wax nangam wala kiy warta wax nangam wala something like this te man du may duggee si wax noonu lu may wax si askan bi lu ne nu ma ko gisee laa koy waxee wala du ma wax à tort loolu tax du may wax si lu ma gis lu ne yéen laa xaar ngeen tàppate vidéo bi yéegal ko wala maa tàmbale ñaari nit rek ñoo ko séddoo gum te loolu doyut kuy seetaan from YouTube na aussi tàppate vidéo bi comment seddoo you know so guys yéen ñu bari xam ngeen kaa bi nu demee waaye xam na yéen ñu bari ñoo xam ne xamu leen exactly nu mu demee te kenn xamul exactly nu mu demee because ñii ñoom ñaar ñoo nekkoon ñii ñoom ñaar fañ bëggoon a sëy ñii ñoom ñaar ñoo xamante woon ay xati xati xati te ñii ñoom ñaar kenn génnut wax kenn ko ne you know nit ñee génn di la waxal kii xam na yenn mbokkam yu génn wax waaye kii man gisuma sax mbokkam bu wax walla kenn ku génn ne maag moo bokk wala nangam nangam so ñoom ñaar gisuma seen interview gisuma seen wax kon nag ñun kenn xamul exactly lu xew loolu laa bëgg a leeral nit ñi law lawi naan xam nañ lu xew yu xew yëpp xamuñ lu xew kenn du mën a xam lu xew exactly when come to ñaar ñii benn fañ yàggoon ba mel ni ñuy sëy ñaata xati yàlla ñaar liñ doon dugalante mbiri xaalis du caaxaan loo foog ne loolu la rek du loolu foo foog ne falaxem rek ëpp na ko ñaar ñii ay milliards yiñ dugalante ak liñ doon def diggante Gambie senegaal loo foog ne loolu la rekk ëpp na loolu loolu laa bëgg leer leen tapoté leen vidéo bi séddoo ko wala ngeen génn yéen suma ma noon yi nga xam ne saa wu ngeen ñëwee ci suma page bi ngeen ne bugg leen ma du ngeen tapoté du ngeen séddoo su ngeen demee si yeneen nit ñi saagande ak kaa nit ñi ba duñ nelaw ak wax waxi xaj ci askan bi di ko yàq ngeen tapoté séddoo yéen ñiy def noonu di yàq suma page bi toog ci te du ngeen séddoo du ngeen tapoté te xam nga ne TikTok buggul lool lépp lu ngeen di def ëllëg lu ngeen bugg mu dox yàlla soxoot gi ngeen may yët suma péej bi xëy su leen saa wu ngeen di def dara lu ngeen soxla ndimbal yàlla mbon geeg soxoot gi ngeen di yët suma péej bi xëy si leen bolog leen ma manu leen di dem si nit ñuy saaga ndey ak kaani ñi kaay yu bon ba ñu xaroo ka def waxi caay-caay yu bon soo waxee ñu ne may jàngale xay yi nga xam ne seen vidéo yi pour xut xaalis la ak xut opportunité ak yàq askan bi ngeen tàppate tàppate seddoo xol yi naaw su ngeen ñëwee si man mi wax suma fayda ak di wax pour suma askan bi xam jàmm ak gëm seen bopp ak xam fan wu gudda gi yaram ngeen di ma xool di ma bañ seen xol bi dagg ngeen xañaane ma ki ma do te buñ leen di suuli xas naa ba do ki ma do ba pare xat mu ne fay gën a yokk nag man ami ndax maa gëm suma bopp te jàng xam-xam yu baax xat mu ne te yéen ñu bari ngeen xalku te toskare bu yàgg gëma di seen bopp te xalku te bugg xalal te lu ne ngeen di ko def di xam xalal te jos mën a fen te soxot te xalku te toskare bañ suuli leen yéen ñu bëree bëree bëree bëree bëri bu ma deexoon it ngeen di xalku wéru leen seen xalkare gi teguma leen ko maa juddu fekk ko ngeen ne man ngeen di xeex di ñëw suma page bi nag coppooral nag sëmma ni ay yëmb yu sibbutu te du ngeen tàppatee du ngeen séddoo pour page bi xam problème moo képp kuy ñëw di distract suma page bi di yàq suma liggéey bi lépp looy defal lëg loo gëm te bëgg mu dox comme ni ma gëmee suma liggéey suma askan bi may liggéey foofu free yërëmoo ma si baxoo ma ne man ngay ñëw duma tooñ suma page bi képp kuy ñëw suma page bi pour jëw ma ma toog di defanteeg man di woon ne maa tey duma tàppate ma yàq sa page bi lépp looy defal lëg loo soxla ndimbal yàlla bu mu xam ndimbal comme ni ngay ñàkk joxe joxee bi ndimbal yàlla na ko ñàkkee ndimbal saa woo soxlaa ndimbal ci nit ñi wala ci yàlla ah du yaay ñëw suma page di ma tooñ ma jënd suma internet jënd suma téléphone taaj suma nangam bi di bax ba fi wax nga ñëw dugg ci page bi toog dégg li may wax mu baax xam solo du dëgg nga ne doo ko tàppate doo ko séddoo waaye danga ko dégg dégloo pare di ma jëw di ma xas di ma tuutil di ma ree yaa ngi may tooñ dabul tooñ képp ku may def noonu lépp looy def ëllëg loo bëgg mu dox yàlla soxot gi may yót xëy si la mënoo xa def loo bëgg mu dox ba raw suma liggéey bi xam naa ne suma liggéey bi du ma si am xaali moo tax nga fa ne maa dof yow yaa gore xadi tey xaj moo tax nga di ma seetaan te doo tàppate doo séddoo doo donate soo dugoon beneen xeet su may ñëw nit ñaa ngi donate di subscribe si suma lifin bi biddiw boobu di lu may jaay ñu jënd di di di support nit ñu bëri ni konoon ni ngeen ma bañee nii su ngeen doxoon xeet bu donate du ngeen ma bañee nii ndax gis ngeen saaga saagakati ndey yi lonk nit ñi di saaga seen ndey ak kaa nit ñi génne seen audio ba ñuy xaru ngeen di leen doneetal di subscribe si seen étoile yi seen biddiw yi di leen may di leen doneetal président sax di leen may di xaritoog ñoom maasi aadama aadamoo keneen ak keneen ngeen a soxotam naa fekk te dund métti te ji koy jaam yéen ñu bari moo tax ngeen di ma xeex ni ngeen may xeexee lu ma leen def lu jar lool man suma liggéey bi du caaxaan boloog leen suma péej bi taba ma mbala yal na ma suma suma seen xàq yal na ma yal na suma xàq dal leen yal na suma xàq dal yéen ñi may fitnaal suma péej bi di yàq suma liggéey bi yépp yéen ñi nga xam ne saa wu ma ñëwee ngeen ñëw sëm ma ni ay yëmb yu sibbutu te du ngeen dimbale suma liggéey bi di yàq page bi pour TikTok def page bi nii képp kuy def noonu lépp looy def ëllëg bugguma dox koñe geeg soxot gi ngay yot suma page bi yàlla na la xëy si koo xam ne ngaa biisi waxuma la koo xam ne yaa ngi ci liggéeykaay di seetaan mënoo def nii fañ lay dàq liggéey waxuma la dofuma loolu moo la ko teree def waaye bañoo ma bonoo bu duutoon loolu nga def ko waxuma la ko xam ne moo ko tay na lànk katandaare bon te dundu métti te xame ji koy xaj laay wax fi ne leen rek man danaa wax li may wax yéen ñiy tàppate jërë ngeen jëf képp kuy tàppate lépp looy def lu baax yàlla na ko yàlla tàppate mu dox sa xol bu baax bi ngay lebal vidéo bi na la xëy si boo ko soxla ku soxot sa soxot gi na la xëy si boo soxlaa ndimbal léegi ñu continuer ma commencé wax suma xalaat ngeen continuer tàppate di séddoo xaw ma lu ngeen tëb ne lay yu bëgg a dugg nii ñaar ñi bugg a dugg nii lu ñuy wut I ma ñëw di wax pare tàmbalee ma sax ngeen ne lay yu bëgg a dugg di yónnee ay lifin tàppate leen vidéo bi jërë ngeen jëf waa gi ngeen lii muy xayu xablaay càmm mii ak Aïssa mii góor yi askan bile wax naa leen ngeen ba seen caga geeg seen mën a njaaloo gi gëmu leen ma ngeen foog ne ma leen di xas waaye gisagu leen dara nag askan bi nga xam ne fa bëri jigéen ñu dund métti te xamuñ seen valeur luñ rafet rafet te yéen ngeen caga te wig ngeen yàgg yàq ay milliards ci jigéen wala ay sa onot seen jabar yeeg seen mbokk yi toog yéen a xalku te dund métit te xame ji koy jaam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yéen mel nii tout te kat yéen ngeen a xame ay doom Ablaye Thiam mii fa xame ay doom ak jabar ak ay jarbaat ak nit ñi roy ci moom rek mu di leen jàngal cagga gi ak feebar gi ak xalkare gi xool leen Ablaye Thiam milliards yi nga xam ne jël na ko jox ko gune jigéen gi nga xam ne buggut ko guddi buggut ko euh, buggut ko guddi buggut ko bëccëg te Ablaye Thiam mi xamoon na ne gune jigéen gi bugg ko xoolal Ablaye Thiam mi xool gune jigéen gi ndax Ablaye Thiam mu màggat te ñaaw mii man naa xam gune jigéen gii jabar moom laa leen di laaj ngeen tontuma ci loolu te fekk sëy bu dëgg la gune jigéen gi loof ko tàppote leen de bu kenn ba tàppote mi jërë ngeen jëf continuer leen di tàppate di séddoo bu leen ma baxee suma noon yi bu ñuy dagg seen baaraam yi sax duñ tàppate fañ ma xañaane suma taar bi ñii xañaane ma li ma rafetee kaar ñii xañaane ma man ci sama bopp li ma gëm sama bopp ak jos lekk yu baax yi may lekk mbuumi ne ba daa yéeg yooyu sungu fi laala guy yéeg ne ñu xañaane ma ko nag gis nañ ni mi suma yaram ñële xañaane ma li may yëngatu di wàññi suma yaram bi ñële xañaane ma góor ñu góor ñi ma nopp mere ma ne lu tax nobu ma leen ñeneen ñi mere ma ne lu tax may xeex pour jigéen ñi gëm seen bopp ñële di ma mere ne lu tax may wax ci mbiri xeesal ñële di ma mere ne lu tax dóor gune ñële di ma mere ne lu tax may bul làmbatu gune lu bari lañ may mere sëy yu bon yi may xeex lu ne lu ne lu ne yéen focus leen si tàppate rek yéen ñaari gor yi ne ci askan wi fukk boo compté ñaar ñi da gor yéen laa yaakaar léegi aha leen Ablaye Thiam rek mi ni lëggu si butu te Ablaye Thiam mii si kiñam bi ni xar mu si nii leer na ko ne Aïssa Faty mii nëbu ko yéen ci seen bopp leer na leen ne ñaar ñii mënuñoo sëy te fekk mbugeel gu loof I love you mbugeel you know real I love you yëg borom sentir ko doo nelaw loof kii mënu koo def kii loolu moom leer na leen boo ko doon seetaan ci film it xoolal ñaar nataal yi rek focus leen si ñaar nataal yi rek ndax yéen a ngi ñaar nataal yi bu ndax mbaa dara newut di leen hiital kii ndax xablaay caam dara newut di leen ko hiital wa bind leen ko ma xam ndax yéen a ngi gis xablaay caam bu baax mu mel ni xar mu kostinu nii yéen koy gis mii fa xam jabar Sénégal xablaay caam mii <laughs> mais réewaay may jooy xablaay <laughs> caam mii xablaay fa xamee jabar Sénégal joo xam ne fa ko fa wucc ak doomam ya <laughs> te xóor na ma ni mbokkam yaa ngi mel ni man bu ñu xañee duñu reer mu soxla ndimbal mu dem gam bi jël ay milliards jox ko kii ak di ko jox yeneen jigéen ya Gambie ak fune ne rek ne xam naa ne ca Gambie yemalu ko gàmbi rek ak Sénégal sax fa ko fay def xam naa te fi mu ne nii maasam yi may xas bët bu set ci seen caga gi ngeen ne maa yabaate xool leen gàcce gii rek fi mu ne nii cagaam gi tax mu topp guneeg jigéen gi ñaata xati yàlla te guneeg jigéen gi dëgg la waratoon a nekk ak moom di jël milliards yooyu loo dëgg la guneeg jigéen gi mooy fa waroon a gëm boppam di ko seetaan xam ne ñii fañ xal ko te caga loolu dëgg la waaye ko yóbboo fi mu ne mu naan jigéen gi fa ay nataalam ak ay vidéo bugg koo weer ak lu ne mu di ko wax gi ngeen gàm bi xaw ma programme bi fa xamoon bu yàgg nii islamique programme boobu OI xaw ma lan dégg naa xaw ma ndax dëgg laa ndéem ñu ne moom fa leen waroon a tabaxal palaas fu nit ña war a dëkk te tabaxu ko nit ña ñëw fañ leen sàcc nit ña jógee Mali ñëw ñu sàcc seeni téléphone ndax amuñ place bu baax bu ñuy dëkk tàppate leen nen jërë ngeen xalaatal su fekkee ne moom ci boppam bokk na ca loola ca waroon a tabax place ba te tabaxu ko xaw ma nag dégg naa nit ñi di ko wax leen bala maa dee ñu naan waruma dégg naa dégg naa lu ci ne loolu nit yàgg nañ ko wax dégg naa nangam dégg naa mooy dégg naa waxu ne fa wuteeg nangam moo am leen rek dégg ko moom ci boppam kii milliards yim jox gu nekk jigéen gii moom moo ci gën a tuuti wax naa leen ne Afrique nit ñi ne ci nguuri Afrique milliards yi ñuy dox jigéen ñi ñuy jox jigéen ñi ñu takkut Afrique tout milliards yi ñuy jox gune jigéen ñi takkut moo tax soo demee hôpital doo am paracetamol xam nga kii ñëw di liggéey si nguur gi daay ñu ne fa fay dugalantee nguur gi surtout Gambie something like this like fa leen xam di dugalantee ñoom wala di business ak ñoom wala something like léegi xalaatal ministère seeni bopp nag ak ni xubb daas ya yeni di ding dingaaral sa nguur ga xalaatal guy ya doxu sa nguur ga nag nañuy mel ndegam kii rek moo mel nii xalaatal guy ya wër nguur ga di laal ca milliards ya nañ mel tàppate leen gi ngeen façon yii ñoo tax af Afrique du développe benn ñaar ñoo tax gune yu bëri ëlbati def seen bopp private caga wax naa gune askan bi ne leen su ngeen gëmul seen bopp yërëm naa leen góori askan bi ñoom ñu bari fañ dundu metti te caga te wig te yàpp seen bopp faale huñ bu ñuy xam feebar faale huñ bul boo leen di weer seen vidéo yi faale huñ yu noo façon yi gàcce yi xew faale huñ yàq seen sëy bi ci kër gi di njaaloo ba jabar ji du leen respect du leen loof seen doom yi duñ leen respect duñ leen loof faale wuñ askan bi jàng seen jikkoy xajjooj faale wuñ yàlla faale wuñ lenn ñoom nañ xam lekk rek ak cot-coti ni béy wu sibbutu rek xam nga lan la fañ dund métit askan bi fa ñuy dóor gune moo tax nit ñi di foo ko su leen bégal te bégal rawul nga xam loof boo ne nga xam loof borom bu la loofu tit soo wérut ngay topp da foog ne yow yaa ko loof rek ndax bànneex bi ngay yëg nit ngay mën a contrôle sa yuur gi mbala pare woo pour dund àdduna love or not soo mënta contrôle sa yuur gi danga mer jam nit paaka danga jaxle sàcc ñu tëj la wala nga xam record mbala nga miin ko defaat ko defaat ko bañ tëj la danga stress dorogu wala nga tux yàmba wala nga naan danga yàkkamti tax nga tëdd ko wata tëdd wala ngay xalku soo mënta contrôle sa yuur gi sa yuur gi mooy sa ennemi bopp góor wala jigéen mag wala ndaw lekk gu baax si yaram sax doo ko lekk sa yuur gi du ko nangu jóg yëngatu yi may def di yuuxu yëngatu sax sa yuur gi du ko nangu tapote leen thank you so gi soo ko mënta contrôle ya fenees moo lay wax ne doo def li xoolal nit ñëpp a def doo xam li doo jël li doo nangu li yow de boo xamoon nanga wuu xoolal lii bugg nañ ko war nañ ko xam hii xoolal lii nanga hii xoolal na le yow yaay yow yaay nangu li doo def li kii def la lii yow nga war a def la lii yow yaa ne nangam nangam sa yuur gi boo ko mënta contrôle ngay tëddi kaso rey sa bopp rey ay nit toroxal sa bopp toroxal yeneen nit façon ngi toroxtaande toroxtaande fu bari façon xam nga toroxtaande rawut lii muy góor wala jigéen toroxtaande rawut loof ku la loofut gis ngeen Ablaye Thiam mii depuis first time ba ne surtout bëtam yi si kii la xam ne kii nobbu ko billaahi wallaahi tallaahi Ablaye Thiam leeroon na ko ne kii nëbbu ko waaye nobut boppam bu gut boppam te respectut boppam mu dafa dof nag bañ di ko waaj a suuli mu foog ne mën naa jënd loof waaxu dem ca bitig ba jënd minti jëndi mburu jënd ataaya ak suukar mooy loof loof mooy sa warga ak suukar booy waaxu sa bitig ba jënd ko ñu jaay la loof ba nga jël ko lëmas ko taaj ko thank you so much tàppate leen bu leen ma baax ak suma noon yi gisoo fukki nit ak benn rekk a ko séddoo te xola ñaata nit ay seetaan mënuma koo gis bu baax ndax bind yi waaye ñeenti téeméer nit ak dara foog naa ñooy seetaan mhm. ñeenti téeméer ak juróom fukk ak dara fukki nit ak benn kott séddoo ko bu leen ma baax suma noon yi de suma noon yi ñu tëddal seen baaraam yii lañ se këtt ko ak ay jaaseeg ay sémmiñ di ko këtt benn benn moo leen gënal ñu tàppate noonu lañ ma bañee waaye duñ ma sa xam jàmm de ñoom ñu ñëw suma page bi di use suma énergie di ko déglu di ma tooñ ba pare di ma seetaan pour xas ma tuutil ma toog ci page bi prenkulaay duñ seet duñ tàppate pour page bi yàqu suñ paree dem ca saagakati ndey yaag waxkati laalante yu bon ya ni cagab ni cag pornographique free pornographique ci internet bi gune yi seetaan ñuy tàppate dem ca kaakat yaa génnekati yi audio yaa saagakati ndey ya ba nit ñee xaru ñuy tàppate maasi seex yee keneen ak keneen ñi kaa nit ñi ci ngelaw di kaa mi ya gisee si ngelaw kaa nit ñi ci ngelaw ñu ko deful dara ba duñ nelaw guddi ak stress nit ñay tàppote du ngeen mës a xam jàmm yéen ñu bëri yéen ñuy tàppote yéen ñuy seetaan yéen ñu bëri du ngeen mës a xam jàmm yéen a raw defkati vidéo yu bon yi das da turut su dut man sax xool leen vidéo yi ngeen di tàppote ndax su ngeen xamoon ngor magam jëmm yu xem ni yéen muskàllaf yu xem ni yéen xam àdduna gis seen yi waram li ñuy def ndax bu leen ko defoon yéen da ngeen nelaw ndax bu ko defoon seen doom seen rakk seen mag seen jëkkër seen xarit ku ne ndax da ngeen nelaw te ñooñu ngeen di bindal ne di leen di leen di tàccul ne yéen a fi ne akat di séddoo ñëw ci man toog ne tiis ne ding ci page bi ne doo tàppatee doo séddoo képp koo xam ne ngay ñëw suma page bi frenkulaay te doo tàppate doo séddoo te xam nga ne loolu baaxul ci page bi waaye nga ne man ngay yàqal suma liggéey bee ndooy lépp looy defal lëg loo bëgg dox yal na sa xol bu soxot bi may yët ci suma vidéo bi xëy si la bés boo soxlaa ndimbal si nit ñi wala yàlla yàlla soxot gi ngay jox suma page bi xëy si la te du duma bolog dooma ba nga may jaay doole di ma wane ne internet la naa la seetaan bàyyi foofu te du ma la dimbale di ma tooñ di yàq suma page bi banaa laaj yàlla yonent ba suma liggéey bu baax bii buñ lay suuli it mënoo si dara xanaa nga rendi ma koo manti do feeg maa ngi dund su dara xewee danaa ko wax ni ma ko gisee te duma ko wax waxi naa feq ak waxi farfarloo ak waxi kii ki kaa dana ma mere yéen naa feqi xaj yi kuy bañ ngeen ngeen mere ko yéen ñu bëri jaam ngeen wéru leen ngeen a dund métti te naa feq mën a fen te soxot te xame jikkoy jaam yéen ñu bëri kuy wax ne fay bañ ngeen mere ko du wax dëgg looloo tax ngeen bañ ma nag li ngeen xam ne man du may jaamu nit su may dundee sarde nit fii laay continuer rek bu xaa dina doon tukki sax xam ngeen ma haa waaye danañ leen robi walla waaye du moo wecceeku de yéen yéen nit ngeen yéen du ngeen jàng loolu loolu ngeen war a jàng bu doon man sax seen di koy xaj yi moo yéen du ngeen ci ruus anyway baax si li may wax jërë jëf yéen ñi tàppate thank you so ma ne leen Ablaye Thiam mii depuis first day ba gisee kii bës ba pëlam wiir bés bu njëkk ba ba yi ne dalee ci kaw kii la xamoon ne kii du ko mën a loof loof bu jógee ci xolam bi ndax dégg ngeen li ma leen di wax te loolu du Ablaye Thiam rek moo koy def ci góori askan bi jigéen sax xam na jigéen ñi koy def nit ngay mën a contrôle sa émotion man xam ngeen lu taseeguma du wut ne taseewuma nit koo xam ne bugg naa ko waaye fa may leer ne kii Ida buggut ma bu baax wala ni muy waxee man am nu muy defee man su ma sëyee danaa sonn rek wala yéen ñi ma xalaat sax ne kii day fa xamee jabar su ma moom baa jabaram du mer mu ne leen su ma sëy bu mujj a tas nii bi sëy bi tas ni yinoo ëpp na juróomi at boobaa léegi boroom ma koo bàyyee jabaram te ma koo loofoon su ma bàyyi gune yi sax man bu ma doon sëy moom ma koo loofoon waaye maa xam ne su ma continuer may dee ak naqat ma bakko ko te xaaruma mu yàgg even doo sëy naa ak moo tax mag moom ñaari doom jigéen ñu bari ñu ngi toog ci sëy bu gën a bon lool soo waxee ñu ne maa loof borom maa loof borom yéen ngeen a wét loo kenn dana ko forcé ak di ko jënd di kuy jënd mbiskit thank you so much jërë jëf askan bi fa bëri nit ñu gëma di seen bopp xam na ci góor xam na ci jigéen ñoo xam ne yow boo leen loofee te ñoom loofuñ la sax fa ñuy mënee jag yow ñenn ñi fañ koy def ba sëy yow kii fa xam saas sax kii sëyut ak moom ñenn ñi fañ koy def ba sëy ak yow di jël ay million ci yow muy góor wala jigéen wala jos biiral lay nga xam ay doom ñu wees sa time fukki at ci kanam you know fukki ak juróom si kanam ngay ngay jooy ba saawoo sonnee sëy bi tas mbala nga continuer di jooy ba abada thank you so much tàppate leen jërë ngeen jëf muy góor wala jigéen askan bi ñun liñ war a jàng mooy xam ne nit ñi fañ gëma di seen bopp xamuñ seen valeur te bu ñëwee ci sëy sëy yi nga xam ne waruñoo sëy ak seen borom fa bëri tapoté leen vidéo te séddoo ko rek kii buy joxeñ ay baaraam xam lu muy joxeñ baaraam xaaral ma muut ko foog naa loolu saaga lay def te loolu baaxul si page bi baaraam bi ci digg boo koy joxoñ noonu allo waa tapoté leen te séddoo vidéo bi rek te yónnee ay xol te tapoté te séddoo jërëgéen jëf fukki nit ak juróom-ñeent séddoo nañ ko képp kuy séddoo ka like ak a séddoo lépp looy def lu baax yàlla na dox mbaax gi ngay yót vidéo bi saa soxlaa soxlaan dimbal ci àddina si wala si yàlla wala si nit ñi yàlla na ñëw xëy si la jaam yu soxot yi soxot gi ngeen di yót vidéo bi yal na leen xëy si bés bu ngeen soxlaan dimbal soxot gi xëy si leen wala ngeen génn vidéo bi suma time bi ngeen di jël ak suma internet bi ak suma téléphone bi ma jënd ak suma xaalis di fay internet bi weer bu ne tey laa ko jógee fay nii ak suma time bii ma toog di wax ak yéen te su ma neexoon may tagg ay président ñu di ma fay su su président yi rey nit sax gis ngeen nit ñi ko fiy def su ma neexoon ma ne di wax waxi xaj aka saaga suba ba jant so di saagaal ni ñuy di ma fayaka lu ne ma di ko def man la neex may def li may def si firi di seet dëgg gi fu ne ma di ko wax sooy boo ngeen mere ma xeesal baaxul ma wax ko sooy boo ngeen mere ma baleen dóor gu ne ma wax ko sooy boo ngeen mere ma sëy yu bon yi ma wax ko lu ne rek ak li ma dund ci askan bi te baaxul sax ma wax leen ko kii ni mu def ak nekk ak kii man defoon naa lu mel noonu parce que paxab tubaab bi ma takk indi ma fii waruma woon a sëy ak su ma xamoon lu ma xam waaye nag loolu rek laa ma sa def lu ma war ta def ci wàllu sëy ak nit wala jël xalal ci guur paaxab tubaab bu xamutoon sa xalal paa boobu bu ma doon takk lu ma joxoon pour takk gi matut ñaar téeméeri pound rek la ma joxoon ma yokk suma xaalis ba may wuti visa di ñëw fii xaalis bu ma joxoon pour visa téeméeri pound la matut maa si yokk suma xaalis eh, ticket pour ñëw fii xaalis bu ma joxoon pour ticket ñëw fii ñaar téeméeri pound la maa si yokk suma xaalis téeméer wala téeméer rek ma daan jox lu ma nekk ak mooñu bi amul xaalis ñeenti fan lay liggéey of ñeenti fan te liggéey bu baax liggéey kansul la doon def nit ñi jël mbali ci mbedd mi ni loolu la doon liggéey ku ne UK xam nga foofu xam nga li may wax <clears throat> paa bi ñu bëri xam nañ ko gannaaw bu mu jeexalee man fa demaa takk beneen jigéeni Gambien indi ko nit ñoo ñu ngi may seetaan bu dee may fen tàppote leen rek ak suma mbokki bopp yi ñu may seetaan bu dee may fen lu nit wax ngeen ne fay fen waaye yéen a koy yëg anyway that's fine paa boobu waruma woon a nangu mu takk ma indi ma fii xam nga lu tax loofu ma ko woon loof dëgg-dëgg bu nga xam ne moom leer na ma ne su ma neexee paa bi paa bi fa daan naan te xam naa ne bugguma ak kuy naan waaye nag paa bi fa fa ma daan wax ne maa rafet fu ma wicc mu naan ma sa ñuulaay bi sa rafetaay bi xam naa mooy maa si kii ku dem noonu la doon def kii te ma màggoon miinu ma góor gu ma su ma xam góor gu may wax ne maa rafetee noonu ba du ma tasee paa loolu neexoon na ma si moom waaye also su ma xamoon lu ma xam tey du ma sëy ak paa bi rek say boobu ne ma ngaa rafet waaye jëlee lu ma ko ay milliards nekk ak moom ay xat di jël ay milliards comme kii kii waaye nag xam nga tama bëgg a wax si lii góor ñu bëri ci askan bi ñoo yàq ay milliards si jigéen ju leen buggut xam na jigéen ñi koy def sax comme nu ma leen ko waxee man su ma gëmutoon sama bopp sëyaat naa bu yàgg su ma gëmutoon sama bopp du bàyyi sama bàyyi doom yi su ma gëmutoon sama bopp su ma sëy bu mujjee jeex ni gàmbi du jeex ndax borom ma koo loofoon mu njool si ñuul njool taxaw góor gu baax te noppi ko ko gis bëgg ko fit rafet maa ko wax ne kon jëlal na la sa jabar jël ba ma gisee ne jabar ji fa fiir dugg ci sëy bi di ferenku lay ci sëy bi ma ne ko wuu sëy baa ngoog yaa ngoog weer la sëy bi xam ne ko sëy baa ngoog takk goo xam ne takki góor la woon jarul ma direeku fi di wuti sëriñ ak direeku yi defante xëccoo yow sa jëkkër ngeen xam ñaata doom xalaatuma ko sëy fa ma jaral lool xëccoo góor ci jigéen ju fa doxu ñaata at nga ñëw di ko jooyloo man xam naa lu ci lu ci jooy ngir sëy bàyyi gune yi li ma jooyoon si moom rek doy na du ma jooyloo sama moroomu jigéen ngir sëy moo tax ba tey sëyaguma góor ñi xam jabar di ma topp yépp may ragal a sëy ak ñoom ngir seen jabar yi jooy laaj ko góor ñi ba bu set ma wax leen ko sa jabar nag ñu naan ma sa yoon néew si may leen ankay su ma yoonoon si kay man maay dugg ci sëy bi man maay dugg ci jëkkatam nga ne su ma yoon néew si waaye gi nga yéen ngeen di topp diw loof naa ko muy góor wala jigéen di cot-coti ni bay yu si buddu nit ngay contrôle sa émotion góor wala jigéen loof duut koo ko def rek nga ko war a xam loof du caaxaan nga yëgee nit ki la la war a yëgee plus jikko yi fañ war a xànd su yëpp xàndul sax yu ci bëri fañ war a xànd maanaam yow boo duut fenkat nga war a xam koo xam ne duut fenkat su dee ngaa baax ta tabe you ak yeneen a yeneen kooku fa war a xam yeneen jikko yooyu at least ngeen xànd waaye yow soo melee ni mel nii du dox ñaari fan sax du ko xam su dul mbiri kii sax waaye ay milliards yi nga xam ne góor ñu cagañ ñi te bon fañ koy jox gune yu ndaw yi nga xam ne ñoo rafet wala gune yi xamee kàpp yu rafet wala ween yu rafet walla nangam hey milliards yooyu ko ko oytuwut góor ñi mën nañ laa wàll sida ak yeneen feebari soppis yee feebari laalante yi yëpp te seen tëfli di sax fay ak feebar tëflit fa ànd ak feebar bu bu wéru laaj ko ku la neex tëflit yi borom foon la tëflit yi tëflit deret la tàppote leen vidéo bi tëflit yi rek mën na la koo wàll nag tëflit yoo xam ne fu ne lay deret ju ne lay jaxasoo te borom xaalis yi nga xam ne fa ñuy dem ay Dubaay ak àllaaxira fu ne ñu di fa tëdd ak nit ñi nag fañ cagata bont bi ñoom ñu bëri góori nit ku ñuul dëgg pour mu wane ne du góor ñi yëpp nag waaye ñoom ñu ci bëri pour ñu wane ne góor lañ xam nga fuñ koy wone laal kuñ warta laal lekk-lekk gu neex bu lekk nga baaxul ci yaram sax nañ dee ñoo koy yëg ak mer surtout merloo jigéen ak defanteeg jigéen walla mer dóor mer jam mer de euh. ñett yii la góori nit ku ñuul dëgg di wane góor yaa am fukk boo compté juróom-ñaari yëpp boobu fii la ñuy wonee seen góor yaa soo buggee xam ne góor lañ fii lañ koy wone fii lañuy jaayee doole téye ko fa nag duma bali di di di man góor laa kenn duma xilif suñuy njaaloo suñuy merloo kuñ warta merloo maanaam merloo sa sa jabar ko la loof wala jigéen bi la loof wala defante sa yeneen mbokk la yaakaar wala jos sa doom yi nga dóor leen tocco leen jos def loo warta def daal ak a direeku ci lekk gu bon nag góori nit ku ñuul dëgg loolu ñett yi lañ ko xamee fii ba Amérique laaja ku la neex tubaab yeeg ñëpp dañu rey ak seen waay naar yeeg ñëpp ndax ñun ñëpp ñu bañ seen waay bañ ñu naar yi bañ ñu tubaab yi bañ ñu ñëpp bañ ñu waa Somalia sax fañ ñuy bañ ñun kenn rek ñu taxawee nii coppoorlu fii ñun kenn te ñun wituñ nag fukk boo konte ñaar rekk wit wala benn te ñooñ ko ci wax de juróom-ñetti yëpp di la attaque thank you so much tàppate leen rek uh, ñaar fukki nit ak juróom-ñaar ko seddoo loolu doyut dina ngi mel ni ngaana yu sibbutu xam nga lu tax ngeen maa xañaane li nga xam ne du may ne di saagandee ci askan wi du may ne di wax waxi laalante yu bon soo waxee ma ne may jàngale laalante du may ne di def daal vidéo yu bon ak a def vidéo yu mel ni borom fa faxal ko wala nangam ngeen xañaane ma nag suba su ma xëyee di gën a leer nag ak suma ñuulaay bu rafet bi jaru xeesa nopp yi ni firgaati gaal taxawal ma muur ko firgaati gaal yi suma nopp yi nag melul du du firgaati gaal de guddeewut noonu waaye taxawal rek dégg ngeen ko waa tàppate leen moom ngeen ma xañaane nag suma rafetaay bii bu ma ndeloo it te yéen ñu bëri nag bët bu set ma wax leen li tax ma rafet mbuumi nebe daa lekk yu baax yi may lekk suma kanam gi may exercise taay yi sax di leen ko wan ne leen bu ngeen di def nangam seen kanam gi fay rafet taxawal ma wanaale leen ko si vidéo balaa ngeen a dem exercise si kanam gi nga xam ne fay leeral kanam doo màggat ñeent fukki at ñett laa am ni duuma neewuma di use filter moo tax de ba ma jógee Gambie tey maa ngi def exercise si kanam bi plus di sangoo suma saabu saabu may defar di ko jaay muy saabu bi nga xam fa ànd ak kaasi yaa goo xam ne Gàmbi la jógee saabu mali bu ñuul bi ànd ak vitamine E du di sorry ak um, karité gi nga xam ne maa koy defar fukki pound ak juróom rek pot bi ku bugg na ma bind bind ma tiktok fii wala nga email ma ami xolof gmail dot com maa yàgg a xees waaye fii fa gënoon a ñuul you know waaye lu mu ma dalee sangoo lii ba tey mu ngi gën a maasaloo you know ak jos ngay rafet kanam gi wax naa leen nii ngeen koy ne léegi tey góor ñu bon ñi nag te bañ jigéen na fa ñuy mer fa ñuy wax ne continuer ji wax ji looy def xam nga li tax bugguñ nga wane natural beauty fañ bugg jigéen ñi gëma di seen bopp di xeesal gëma di seen bopp di you di di def yeneen ak yeneen di nangu ñoom ñu tëddoo la bi ko gëmoo sa bopp ñeneen ak yeneen moo tax booy jàngale natural beauty self love nangam nangam rek góor gu bon dëgg xool ko sooy jàngal jigéen gëm sa bopp natural beauty boo ñuulee bul bul xeesal gëmal sa bopp bu nangu nangam nangam yuuram gi fay métti moo tax ñoom ñu bari ñu def ma dof xoolal góor yi askan bi ñi may xooxee dof yëpp ndax xam nañ jikko yu baax billaay wallaay tallaay xool ko koo ci foog ne fa xam jikko ju baax xamu ko moo tax nga koo xamut góor ñi cagata feebar te dund métti te xame jikkoy jaam ci askan bii ñoo ma bañ fa ñuy soxot bugg jigéen ñàkk respect jigéen caga xame yeneen jikko yi may bañ mën a dóor ne mën a dóor jigéen soxot fa ñuy xame daal jikko yi may xeex daal ah bu dul loolu ñu may bañee ci ngelaw luñ may bañee ci ngelaw moom laa leen di laaj nu ma leen def bët bu seet ma ne leen nañ naan bu mam nebe daay nañ def seen bopp nit pour façon yi bum leen dal bët bu set su ma leen di wax ne seen caga gi ba leen ko ngeen mel ni ay béy yu sibbutu ngeen ne maa xamadi ah leen lii rek ki ci gën a tuuti gune góor ñu bëri ci askan bi jigéen ñaa ngi xamee seen record yi xamee seen nataal yi xamee seeni i dossier xaw ma dossier lañ koy waxee xaw ma seen i yoo xam ne bu ko bu génnee ñu xaru te jigéen ñi fañ koy yuus di leen wax yónnee ma nangam baa nga dee yónnee ma nangam baa ñu suuli la comme li kii wax ne kii fa ko xamee ay ay record xaw ma dëgg la am loolu la ni la nit ñi nekk di wax xaw ma dëgg la dégg naa nit ñi di ko gisuma ko riiduma ko si xibaar yi tàppote leen rek loo xam ne riiduma ko si xibaar yi naa leen ko wax ne leen dégg naa léegi mën naa am dëgg la mën naa am du dëgg mën naa am nataal yi mu ko daan yónnee ak vidéo yi kii fa ko xamee I don't know léegi ndax kii daan ko yónnee moom wala lan I don't know anyway da doo seen maata waaye moom leeroon na ko ne kii nëbbu ko te xawal ma waxal leen man mën naa koo gën ci Alxuraan ne kii bës bu mu jàkkaarloo na kii ba ba mu njëkkee jàkkaarloo kii leer na ko ne kii nëbbu ko toppandoo sax maa diitoo ko man mbagg yee xool ko ni melee ni xar mu sibbutu rek ndax kii mën na koo loof kii man ami sax duma ko mën a loof man ami man ami kii bu ñëwoon pour takk ma duma ko loof barki salaatu faatiya man pomputeer ami xolof mii man pomputeer ami xolof mu màggat mi am ñeent fukki at ñett màggatuma nag waaye you know xame jaal suma benn bëñ bi ma xaar ba am jëkkër mu monteel ma ko ak suma ndel bi nii ak say téeméeri yoon xam ñetti doom yëpp rek man ak vidéo di dof dof li may def yëpp rek ak ni ma askan bi yabee def ma dofam lu ne rek man ami xolof rek man su ma taseewu na góor gi mu bugg maa sëy tey duma ko nangu duma ko loof te duma dugalanteeg moom ak million mi yëpp nag barki salaatu faatiha kii nag moom ci boppam nag kii bam jàkkarloo ak moom xamoon na ne kii loofu ko moo ko tey fa dof te wida di taxame ji koy jaam nag jël xaalisam ba leem ko teg ko ci kaw nangamtaan wi nag di cot coti nag baa ngi jël ko jël ko jëlaale nangamtaan wi xaalis mënoo koo leem paquet ab xaalis ba teg ko ci kaw nangamtaan wi rek nit ñi jël yëpp jël ñaari yëpp i dosin wook fa ñuy jël xaalis bi wëccee la nangamtaanu neen wi ngay yuuxu waa tàppate leen rek ndax nit ñi war nañoo def loolu non ndax nit ñi danañ ko def waaw ndax nit ñi war nañoo def loolu non ndax nit ñi danañ ko def waaw ndax nit ñi war nañoo def loolu non ndax nit ñi danañ def loolu waaw ndax dégg ngeen mi wax naa ko ñetti yoon de man mi tam moo tax nit ñi di ma mere xam nga tax lépp lu ma lay wax lu ne nu ma ko gisee laa koy waxee xam nga tax nit ñi di ko def askan bi gëmuñ seen bopp te askan bi feeñ miin jigéen di jël si góor xaalis bu mu war jël xam nga nuñ ko tuddee ñaqu bootaay ak nga xam saa ak góor fay defal jigéen ak lu ne lañ koy tuddee das da turut te loolu lu war a deñ la waaw loolu baaxut baaxut si jigéen ñi koy def jigéen soo miinee di jël si góor doo liggéey booy liggéey sax ngay mbubboo liggéey bi di jël ci góor ñu lépp li ngay liggéey yeneen gune yi di ko gis di ko xam fii mënoo nax kenn nga di leen ko jàng te loolu mën nga ciy jëlee feebar sa ay record mën na see génn xaq mën na la see dal boromam nag mën na laa rey nag far wax ji jeex kii fi mu ne nii su mënoon a rey kii rey ko wala lan te jigéen ñi fa ñuy dee si loolu jigéen fay dee bi ko ngi tëdd góor gu mu wata tëdd si àdduna si yëpp tout surtout jigéen ji cagatu wala jox dugalanteeg nit pour xaalis wala nanga ami looy diwoo su ma diw bopp laay diwoo maa koy jaay saabu bi moo nekk nii saabu bi fa xam kaasiya ak vitamine I ak leneen ak leneen karité génne nii xam vitamine I ak original diwi koko bokkane su ma rakk moo koy nal di ko defar gaam bi maa ko jànga ni ko defare fa koy jaay diwi koko boobu ak vitamine I ak yeneen diw yu baax tampoté leen vidéo bi rek bu nit ñi di xoole rek yaccaaral ni ay yomb yu si butu xamu leen yomb sax yéen ñu bëri xaar ma wan naaje bu ngeen yàccaarale ni naaje yu sibbutu ni xaal ni naaje ne mbàpp rek loo du dimbalee vidéo bi tàppote leen te séddoo wala ngeen bolog ma ta dem mbala suma xàq dal leen yéen suma noon yi may seetaan saa wu ma ñëwee ngeen ñëw mel ni ngaana yu sibbutu te yéen a ko tey banque seen baaraam yi li ngeen di soxot te bañ ma lépp lu ngeen di def ëllëg soxla ci ndimbal nag soxot gi ngeen may yót na leen xëy si nag tàppote leen rek surtout góor ñu bon ñi ñoom duñ tàppate maasé Ablaye Thiam seen yuur gi métti seen jikko ju may xeex Ablaye Thiam mii ba gisee woon kii xamoon na ne kii bugg ko barki salaatu faatiya waaye fa doon gént ci yuuram gi ne bu ko joxee xaalis bu bari kii dana nangu comme góor ñu bari fañ yeb jigéeni askan bi fañ leen di jënd teg mais ni kuy jënd sa xar sëpp tàppate leen guys foofu la ko am laay caam mii gisee ba tax mu di ko def néew leen di tàppate vidéo moo tax vidéo baa ngi càng benn place rek toog ndax su ma noonu yi koy seetaan néew leen di ko séddoo xoolal fanweer nit ak ñeent rek a ko séddoo new leen di ko tàppate xam nga lu tax waxi dëgg gi may wax new ma di wax waxi naa féq xànduma kenn what is your phone number why you want my phone number like that what is it for tàppate leen you can email me amie wolof gmail dot com if or message me I might give you my phone number if you are buying the product, but you have to message me here or email me amiholof@gmail.com. waa tàppate leen jërë ngeen gis ngeen Ablaye Thiam mii ndax yéen a ngi dégg li ma leen di wax leeroon na ko ne Aïssa Faty mii nobu ko woon te bugg ko ma ne Aïssa Faty kuy baayam dégg naa ñu ne Imam Faty baayam ndax loo dëgg la am ak Fatim gi fu mu ko jëlee sa Faty benn si waajuram yi mooy Gambien ñu ne baayam kii yaayam di Gambien kon nag ñoom ñëpp a kii Gambie la juddoo waaye Sénégal la mage yéen ñi wax naa sénégalais yi nii sénégalais yi naa ñoom ñëpp xem kenn ku ne sa benn waajur mooy Gambien do you understand that wax sénégalais yi nii sénégalais yi naa di ko wax kii yéen ñu soxor ñi te bañ sénégalais comme yeneen sénégalais yi soxor yi te bañ Gambien. def leen seen bopp nit ba pare jël mbir mi di ko def mbiri sonko xawma lan nii lañ defoon sonko de lii fa wuuteeg sonko sonko Macky Sall mbaamam xaj mi di tëj tëj bugg ko tëj ci ngelaw tëjoon ko si ngalaw sax ba pare jël gune yi di leen feteel si ngelaw foo aka jos toroxal askan wi si ngelaw foo wuutee kii dugalante kii ñaata xat di lekk ay miliyaaram ci fake love walla xaw ma mu ne kii fa ko yaboon xaw ma lan lan wala kii cagala buggu ko waaye xam naa ne ko plus kii cagalaat ak kii yaboon ko xaw ma lan lan lan lan lan fa wuuteeg sonko mi ngeen di dugal ci mbir mi naan sonko sa nii ngeen ko defoon de senegal nangam xamu leen justice de génnee leen sonko ci seen gémmi gaw set wecc ci mbir mi sàppate leen vidéo bi rek te génnee ci Sénégal ba set wecc kii yaayam Gambien la kii baayam mooy Gambien yaayam naar la ndax xaw ma ñoom ñaar ñëpp a xem Gambie ñoo mën a comme ni sama baay duyee sénégalais ñun ñetti ñi ñëpp sa benn waajur mooy original Gambien so Gambien buy xeex na xeex ngir ne kii jigéen la eh, ñun Gambien ñi nii ta kii ngeen di wax ne sénégalais la kon kii dëkk ba yaayam jógee Morocco ko xaw ma fan waa foofa la moom kon kii Sénégal la gàmbi la juddoo yaayam Gambien la Gambie la juddoo fa magee Sénégal ñu ne xaw ma ñaata at la xam ba fay dem waaye Gambie la juddoo yaayam Gambien la so li ngeen di naafeq te sibbutu seen féeg farle gambien yi nag yéen gambien yéen a bugg gambien nii gambien boo compté fukk boo compté benn wala ñaar moo bugg moroomi gambien ñëpp gambien la ñuy gëñee seen mbaax gi yëpp pour yi la ak ñag yeeg waa Ghana ak waa Guinée Bissau ak yeneen xeet daal ak tubaab yi du pour gambien yi de gambien buy def vidéo ngeen di ko xasutu vidéo bi jàmm xanaa gambien buy kaa gambien buy jaay du ngeen jënd fu ngeen tollu mbiri gambien ngeen di gëñee nag yéen ñu bëri seen mbaax gi xam nga kañ ngeen koy wone su dara xewee ba ngeen di naafeq yéen ñu bëri barki salaatu faatiya seen mbaax naaf naafeq gi jóg di law-lawi nag ku leen fekk ngeen naan kii du gambien kii yow yaayam di gambien mu juddoo juddoo gambien ngeen ko xamul wala ngeen a dof kii ci boppam baayam rek ay Gambien yaayam du Gambien according to story bi tàppate leen ngeen tëb nag naan kële mooy Gambien bi kële du Gambien kii moo yaayam fu mu jógee du ngeen wax foofu tàppate leen bu dee kenn ngeen di wax ne mooy Gambien ngir ne you waajuram du Gambien kon kii du Gambien di benn waajuram du Gambien man sax ngeen may wax loolu dinaa duuma Gambien ndik xolof yi may wax booba xamagu leen woon sax ne sama baay Sénégalais la boobu maa ngi ñëw xees nekk Facebook ngeen naan ma du kii du Gambian xoolal nu moo waxee munu sa waxi Gambian kenn xamul lu moo wax kenn munta dégga olofam yi tuuy bi faane faane bu tuuy bi du Gambian daf di attack xeesalkat yi di wax si yëfi xeesal all the time hee yéen naa fekkata bon yéen lépp lu ngeen di def ko ko wax ngeen def ko noonu yéen xam ngeen barke nit ñi duñu wax yu bon yi jos bi ko koy def man maa leen gën a mun a wax Gambien wolof man maa bëgg ta wax Gambien olof Gambien olof I don't like it it's stupid and it's just like you don't want to speak the way you should speak like your own parents it's like you're not proud of yourself you're like janga nakam du ñu ñu dem lekka ebe yu yaay seetaan amee olof tooy boobu te fekk sa yaay a ngi wax ak ni may waxee nii wala di làkk soose wala pël wala beneen xeet joolaa wala soose wala beneen xeet daal nga sànni ko di wax bële te fekk sa yaay sax mënut buub yow doo rus si lo sa yaay ni muy waxee mënoo ko yow ban fa nga tàppote leen thank so much so mun naa gambien olof maa ko du wax man suma gambien olof yi dañ sexy ba ba daxa yéen seen gambien olof yu bari xam la loolu yéen ñu bari ñu ma dee naan man dama tuuy dama stupide dama local suma gambien olof yee gën a sex yee oh maa ngi wax local olof suma gambien olof yi ñoo gën a seen gambien olof xanaa yéen xamu leen ma su ma nekkoon di ko wax sax all the time yëpp ay ñëwaat ba duma ko dee wax because local yi ma dee wax all the time moo dee dominate Gambian sexy olof yi but Gambian sexy olof yi su ma dive into it danga dee wax ne du ami olof sexy nag ba sol suma wig nag ba di checkers di yëy suma Hollywood cingom xalo jànga ne ñibi fi fa tànga du ñooñu ñibbi maa ngi dem fi dafa tànga xolo jànga xolo tuu yi nii ñi ñaan lañ xanaa xa nga yéen noonu ngeen di def seen parti yëpp pour xas nit yi tuutil nit yi wan di wane ne yéen yéen a better than everybody xa nga yéen noonu ngeen dee paate su ngeen demee si club sax noonu ngeen dee def si club bi yëpp it's about look people down xoolal ñii luñ sol ñii ñan lañ xew bu ngeen dem yéen a kii lum sol moom xoolal lum sol man sax maa daa si oon xewam xoolal ani olof tuuy bi lum sol xam nga noonu ngeen dee partiyee seen ambiance noonu la jow ak xeeb nit yi because da ngeen am chronique depression boo xam ne su ngeen defut ne yéen a aboof nit yi rek you don't feel you don't breathe you can't breathe alone without feeling like you're better than others Please let me have your number. What is it for? Message me and give you the number. ok tàppote leen rek baax ci suma xolof suma original xolof yi ma bugg tam gënal ma lu ne Ablaye Thiam mii fa cagata bonta gëma di boppam ta xamoon na ne kii nobu ko bam njëkkee samp bëtam yi ci kii ne ko jàkk xamoon na ne kii nobu ko billaahi wallaahi tallaahi Ablaye Thiam leeroon na ko ne kii buggut ko waaye Ablaye caam ak moroomam ñi wédadi ci askan wi fa ñuy wax ne fa ñuy jënd loof ni kuy dem ca bitig ba jënd suukar xam nga fu ñu jàngeeloo ci seen maam yi góori askan bi fay yàgg a yab jigéen di takk jigéen ji leen buggut depuis suñu maam yi mu leer leen ne jigéen ji buggut leen comme niñ ma mayewoon bu ma doxee gu ne may ma ko ma buggut paa bu màggat bu mel ni ba mel ni màggatam goon béy sax a ko dàq paa boo moom a takkoon ma doxeegu ne paa bu màggat boo xam ne xam laa càmm mi sax a ko dàq te xam laa càmm mi fi ne su ma bëggoon a takk duma ko nangu nobu ma ko mu mel ni xar mu sibbutu may reewaay may jooy si seen maam yi ngeen jàngee jënd jigéen ni kuy jënd gerte mbala ñu sarax la jigéen ja noonu rek jigéen joo buggut jigéen ji la buggut yow soore jigéen ji do gune gu rafet ñu jox la ko nga jël ndawam tëddoo ko xamee ko muy jur doom te buggut la arrangement yi may xeex fala lii yëpp cosaanoo xam ngeen askan bi luy seen ennemi xeet jigéen ak gune ak sëy yu bon yi ak dóor gune dóor yu bon ak ñàkk a jàng léegi xam ngeen na sëy yu bon yi fu mu jógee ci nit ñi daan takk jabar ju leen buggut billaahi wallaahi tallaahi loolu wax naa ko ba sonn takk jabar ju la buggut nga mel ni ku dem jënd sa jaam rek sëpp jabar jay togg di bojj di soq di tay cere di bale di fóot di jut ay doom di leen boot ay doomi doom ci ngelaw te buggut la xëy ba màggat du ma sa yëg luy mbuggee leen loof balaa ñëw wax ne jabar ja xam nañ fanweeri xat rek fekk nga tëb takk keneen tëb takk keneen yow yaa ngi ci gune yi forom wan gune to another di enjoy gune yi gune goo enjoy ba mu yàgg nga sànni demuti geneen gune wala nga boolante yëpp tey nga sarax kële tuuti laalante demaat ca gune gële ñëwaat ca kële sarax ko tuuti demaat sa gune gële booba la askan wi xam ennemi ennemi boppam nag ba askan wi melee noonu la askan wi doo ennemi boppam mooy askanu Afrique tout tàppate leen rek gis ngeen vidéo bi man maa ngi ñëw dem tëddi su boo may jàngi du ma fi nekk lu yàgg ñeent fukki nit ak ñeent a ko séddoo ba ma fi toogee tey di wax suma dëgg suma noon yi wër ma suma noon yii yàlla bu leen ma masa mënal dara seen bët yi ngeen may xool te bugg leen ma li ngeen ma bañ yàlla lépp lu bon lu ngeen ma yéene dëpp ngi dëpp wër leen ni melentaan leen taan wuñ dëpp tenten yàlla seen bët yu bon yi ngeen may teg te du ngeen tàppati sama vidéo du ngeen ko séddoo seen xool bi mel ni kuy lakk mboq fur furna buy lakk mboq bu ngeen may xool di retetete di togg curaa gerte poj poj bu ngeen may xool ba tàppate du ngeen ko man yàlla na cuuraa gerte bi ngeen di togg seen xool bi muy xañ-xañ yi noonu ba tax du ngeen tàppate bu mu ma mënal dara lu ngeen ma xine lu bon na leen dëpp ni melentaan wuñ dëpp tenteng tenteng nga war melentaan wa ñu ngeen di dund metti te soxot xool leen xaj yi ngeen di tàppateel ci askan bi rek ak jikko ji ñuy def te ku ma fay ay million duma ko def ngeen di ñëw si man wur ma mel ni may rendi nit ci vidéo du ngeen tàppate du ngeen séddoo lu may wax lum xam-xam solo lu mu dëggu-dëggu ngir seen jikkoy naa fekk ji nga xam ne bu ngeen doon dee sax duma si bokk xam ngeen ma depuis Facebook man kenn Ami Olof benn jikko bi duma ko wecc te yéen fu ne ngeen di fa ramaj ramajee di wecceeku ni ay kàkkataar yu si butu tey ngeen ñuul xëlla ngeen bula gannaaw xëlla ngeen wert bu gannaaw xëlla gannaawaate xëlla ngeen weex man nag saa wu ngeen ñëwee fekk ma fii ngeen soxot ta bañ loolu tax su may def vidéo ngeen ñëw ne jiin na du ngeen tàppate di yàq sama vidéo bi te xam ngeen ne tiktok bëggul loolu si lu ma doon wax tàppate leen rek tàppate leen kañ ngay noppi tamit xaaral ma dimbale la ma noppi sa xeesal bi nga mel ni picc géej nga weex ba mel ni picc géej nga mel ni fii yi dem nigérian yooyu léegi tàppote leen nag gi ngeen xablaay mii xamoon na ni kii nobu ko duma ba di di di di di bamtuxaat loolu de te xablaay taxut ma di ko wax xablaay yàgg naa fa mel ni fa yàgg fa yàgg topp jigéen ñi ko bugg di leen weer werse ay million njëkkee na ko du kii xam na ne du maasi kii man te xam na yéen du góor ñi may topp ne fa ñu bugg a takk man ma leen di xool sax duma leen ñeme ne kii du du du suma maas wala ñeme huma ko laa jël nit ñi te su ma neexoon ma jël ne maa gëj a xam jëkkër na mën a am jëkkër wala kii nangam wala kii mu ne bugg na ma xaaral ma dem nit ngay xam sa ndax du dëgg la mën naa xam yeneen gune góor yu ndaw gune góor xam ne maa ko mag tuuti yi noo mu ndaw te rafet nopp ma te bugg ma te duma toroxal loolu mën naa ko am waaye chance bi bëriwul chance bu gën a bëri mooy gune góor yi nopp ma te fekk dara la ñuy wut te bugguñ ma ndax duwuñ suma classe loolu ma dëgg ndax man maa leen mag te askan bi miinuñ di dem ak jigéen ju leen mag tàppote leen ami lan la du dara may léeboon lu pen rek seetaanal wala nga dem tëddi tàppote leen ku dem kii fa xam lan la di ñaawlante moo tax li ma lay wax boo ko xamul na seetaanal rek kii moo jël ay million jox ko guneeg jigéen gii tudd ay Aïssa faati kii yaayam mooy gàmbi mooy baayam di sénégalais kii ba baayam mooy gàmbi yaayam di xama waa Maroc xama waa fan waaye Gambie la juddoo magee fa kii juddoo Gambie waaye Sénégal la magee ñu di ko wax Ablaye Thiam mu xam jabar senegal do ab businessman bu xam xaalis di business ay Gambie Sénégal ak yooyu dugalante daal dem gis guneeg jigéen gii Gambie dugalanteeg moom jox ko ay miliyar yi du jeex gune jigéen gi jàmb ko sëy keneen kii la guneeg jigéen gi sëyal fi mu ne defal ndànk rek xam naa nataal sëyam bi mu ngi nii guneeg jigéen gaa ngi nii jëkkate mu ngi nii dégg nga ko xolam bi dagg moom sëyee guneeg ji góor gii mu dem Sénégal nag fi mu ne ne fay dem def xam xaw ma honeymoon xaw ma anniversaire benn xat anniversaire xaw ma ba demee Sénégal ñu arrest ko fekk mag fa ba jotee ak beneen góor googu mel ni xar noonu Ablaye Thiam moom borom sikkim bi ne xar noonu fañ jotee lu ëpp xati yàlla muy xeexak ak moom kooku di ko yóbbu tribunal xaw ma tribunal xaw ma tribunal ñuy dem tribunal di xéeg ak a wàcc mu di ko fayeeku million ay ay milliards ya mu ne fa dugalante nag moom ay mbiri business ak yeneen ak yeneen te kii diggoon ko sëy mu dem ba jox ko xaalis dégg naa ko ci nit ñi di wax ak si xibaar yi xaw ma si nit ñi ay Karim ba ne fa ko jox xaalis bu mu jënd mbubbi sëy ak yëpp def lu ne kii nangu ne fay sëy ak moom mu solal ko jaaro ne fa ñuy sëy bañ ne noonu la kii delloo ko ko ne ko bàyyi naa kii nag tamit dégg naa nit ñi ñu ne kii mu ne ndax kii maga mbokkam yaa ngi wax si internet bi daal ak nit ñi wax ñu ne kii mu ne góor ga fa ko doon dóor mooy moom Ablaye caam ak fa naqadi deret te cagata bon te Ablaye Thiam fa doon nekk ak yeneen xaritam wala nekk ak jigéen ñi rek daal mu dem ba xam ne Ablaye caam baaxut waaye ñoom ñaar ñëpp kenn waxut nag ay dégg naa ay xibaar yi bind loolu rek la kii nag am na mbokkam yi génn ay rakkam wala magam génn di wax léeg-léeg si vidéo yi nit ñi suñu def live nii maanaam ñu dugg wax loolu gis naa ko ay yoon waa tàppate leen rek waaye ñoom ci seen bopp kenn waxagut I need your product please ok type I mean message me where are you are just message me my messages are open for the public and I will answer you inshallah waa tàppote leen naa fekki jaam yi may seetaan mooy problème bi ñoom ñu bari ñi may seetaan ay jaam leen ñaari peppi nit ñi may seetaan ngir yàlla tàppote leen te séddoo ngeen koy bës nii rek jox ko seen xarit yi su ngeen ma baxee jaam yi duñ tàppote fa leen di jaral ñu boole sama vidéo yi te fekk ma dara képp koo xam ne mu ngi xeex suma liggéey bii yàlla looy def lu baax yàlla xeex ko mu yàqu li ngeen di naa fekk te soxot baag si li ma doon wax tàppate leen vidéo bi aadi day sëqat noonu te du naan jinjar aadi aadi doo defari jinjar ngay mbokkaw mbokkaw yi ni xar mu sibbutu uwu ngay wax jógal defari jinjar bi te bu dee suma néeg nga ne na nga jóg bu ma wàll sëqat mi seetal hita bi ndax fa on ba tey nga fay ko néegi fa tàng waa aja tàppote leen jërë ngeen waa ba ko defee kii bam mu kii ba pare dal di ñu ànd dem Sénégal bu yàggut nii ne fa ñuy def xaw ma anniversaire xaw ma mooy bañ bañ sëyeeg léegi mat na benn at mooy anniversaire something like this ñu arrest leen ca booda ba ba muy bañ ne fa ñuy dugg Sénégal rek ñu jàpp leen police jàpp leen foofu ba tey ñu ngi ko jàpp ñu ne àjjuma àjjuma de laa dégg ñu ne si lañ koy yóbbu koot kenn xamul na ndax suñ ko yóbboo koot fañ koy tëj wala fañ koy bàyyi wala fañ koy jàppaat di yóbbu yóbbuwaat koot comme nañ daan def Sonko ay doon noo loolu la nit ñi bëri jaaxle kuy ñaan nanga ko ñaanal mu rëcc si jàmm. thank you so much jërëgeen jëf xam nga lu tax moom warutoon a jël milliards yi milliards yi Ablaye Thiam ya loolu dëgg la waaye Ablaye Thiam ci boppam xar mu sibbutu mi mu du ngeen wax si loolu. bugg jigéen te wig moromam ñi mel noonu du ngeen wax si loof tapoté leen ak a jënd loof di forcé loof gune jigéen yi ngeen di forcé gune jigéen yi mënul leen leen a forcé loof ak gune góor yi ngeen di forcé loof loof kenn du ko forcé loof bàjjo bi ni koy sentiré ba doo nelaw noonu la ko keneen ki war a sentiré ba du nelaw mbala du dox ñaari façon yi loof yi du dox moo xam bi nga xam ne du dox moo tax du dem ak bi nga xam ne fa toog waaye newul di dox mu ngi toog ak métit ak naqat ndax kenn ki rek a bugg ñaar yooyu yëpp benn baaxu si doo why you want why you putting yourself in that situation when you can have a nice healthy love you choose to love someone who don't love you and you trying to buy the love with money you cannot buy love like you buying sugar Love is natural. You have to feel it until you can't sleep. The person have to feel the same until they can't sleep. Not you alone feeling it and then just buy it. <laughs> this is crazy. yow kenn doo yëg mbëggeel gi doo nelaw rek nga dem jënd mbëggeel gi indi ko eh, no keneen ki fa ko war a yëg natural ba du nelaw comme ni nga ko yëgee ba du nelaw ba doo nelaw that's the truth. askan bi loolu lañ dut masa nangu nag sorenda tu loolu xam nga nit fa xam yenn réalité yu nekk si àdduna yoo xam koy nangu rek sorenda sa xam ne lii nii lay doxee lii nii la mel ma ko war a nangu waaye soo waxee ni nga koy ëlbati def ko yow ni nga bugg mu dem duy dem xaduna duhut ne loof boo bugg rek nga koy xam muy góor wala jigéen duy doxee noonu yenn yi ngay bugg nit te nit koo baaxul ci yow su la buggee sax baaxul si yow bi ko jikkoom yi àndut ak sa bos soo demee moom ngay sonn nga jàpp si yàlla bakku waxuma laa ku la buggut nag far kook xam ne nga koo bugg te buggul la leer naa ne buggul la ni muy jëfee ak yow nga continuer di jënd di jël ay xaalis di fa def di jooy ak jëf xaalis ak wuti sëriñ ak forcé mel ni ku dof kuy def loolu ku ne wetu dafa gëm a di boppam te dund métit te wéde di dafa war a gis thérapie wala ñëw ma faj ko jàngal ko bugg sa bopp foo fekk kuy def loolu buggul boppam laaj ko ku la neex borom xam-xam yi ñoo ko wax du man te loolu nag moo fees dell ci askan bi nag góor di ko def jigéen di ko def du góor ñi rek ko koy def waaye góor ñi ñoo koy gën a def góor ñi ñoo gën a miin jënd loof waaye xam nga tax may la góor ñi fañ koy def jigéen ñi di ko def loof bi ngay jënd borom borom loofut la milliards yi nga koy a tax muy sëy ak yow fa xuutee gune yi nga xam ne si suñ maam yi comme ni ma la ko waxee suñ maam yi sëy yi bon yi daan def jël gune may ko paa bu mu buggut su dul xaalis sax jox may ko ko rek xam nga rek niñ daan def gune nga toog fa di muñ di jooy loolu abuse la tudd gune nga fañ ko abuse fi mu ne nii nag yow gune gi boo màggee nekk góol digga di bugg xaalis def na ma defoon nangu paxaab tubaab ba takk ma indi ma fii for exemple ak façon yii ay sa def ak ñeneen ak ñeneen loolu moo tudd yow yaa ëlbati sa bopp góor digga yaa abuse sa bopp fi mu ne nii ngaa gëmadi sa bopp te toskare yow jigéen ji góor gay ñëw ci yawit leer na ko ne noboo ko moom it mu toskare te gëma di boppam yéen ñaar ngeen ne képp xem taapote leen rek waa jërë ngeen jëf fi ne nii yéen juróom fukki nit ak juróom-ñaar yéen a seddoo vidéo bi te loolu doyut te tàppatewu leen ko ba tey tàppate yi doyut xaw ma nag ki bugg a dugg nii lu muy wut moom laa xamul borom kaab bii ne feewu feewaaral ni góor gu gune góor gu lu muy wut laa xamul man xaajumaa xaaja waaja pare li may wax sax te su ma paree may tëddi fa guddi du ma jël nit ñi ñoo di wax leneen ak leneen di dugal leneen si wax ji wala nit ñi naan waroo wax lii wala nangam lii nit ñi ci def vidéo rek doy na by the way yéen vidéo yi ngeen di def yëpp du dimbale wax ji surtout vidéo yi naa fiqi tëb law law yi wax hee yéen a waane te sibbutu yéen ñiy wax bay mer ci lii di saagaaka mer di jëf-jëf <laughs> man de réew ay jàpp ci yéen yéen luy seen yoon ci xay wile ak yéen kañ ngeen xam kii ba bugg ko bugg ak forcé googu ki nga xam ne faalewul seen ndey sax ngeen ne ci di saaga ndey ak a dër dëri ak a naan kii moom mooy gambien kële du gambien kii benn waajuram mooy gambien góor gi benn waajuram mooy gambien ndax ngeen a fàtte kii benn waajuram mooy gambien ganeen gannaaw ngeen ne góor gu du gambien sénégalais la góor gi benn waajuram yaayam mooy gambien baayam sénégalais kii it yaay baayam rek ay gambien yaayam du gambien xama waa Morocco la xama waa fan according to story bi ndax du yéen naa fekk te sibbutu yéen su ngeen buggee wone ne yéen ngeen a bugg gambien du nii ngeen koy wone su problème ñëwee rek ngeen jóg bu ko ngeen bugg problème ak xuloo ak defante ak féeg baax tëb waaw waaw eh ñun Gambien lañ day war a bugante laay lay la laa diw sangam naan lii ñun dañ war a firi Aysa yéen mën ngeen a firi Aysa Aysa seen baay sax mënu koo firi das de trop Aysa fi mu ne nii ñaan rek a si man dara ak ndogali yàlla lu yàlla dogal baax na lim dugg du caaxaan de fa dugalante criminal gang yoo xam ne. xamu leen ay sa lim dugg sax góor ak criminal gim dugalante nii ñuy def yëfi criminal ci ron loo foog ne moom nga xam rek buy fukk la benn ba sax xamu gi nga buy fukk ay sa dugalante góor gi benn bi xamu ko genn wàlli benn bi nga xam lépp loo ne moom la ay sa dugalante góor gi lu ko raw la ay sa dugalante góor gi xati yàlla ñaata xati yàlla ñu ngi dugalante ay million nekk Sénégal ngeen gis naa leen yéen ñuy wax ci live naan ñu ngi ko jàpp Sénégal te waruñu ko faa jàpp loolu xewewul Sénégal Gambie la xewee ay sa Sénégal sax góor gi jox na ko fa ay millions yu dul jeex ku la wax ne million yi yëpp Gambie lañ ko ko joxe ay sa xam nga ñaata yoon la dem Sénégal di seeti góor gi góor gi dëkk Sénégal ay senegaal bi xam nga ñaata jigéen ñëw seen far yi ne Sénégal ñuy dem weekend Sénégal ci hôtel yu seer ya di laalante ba seen xol sedd ñu ñibbi xam nga ñaata nitay jàll féeri dem Gàmbi weekend di fekk seen jànq wala seen far yi laalante ba seen xol sedd ñibbi wala ay farak jànq yu tasee Sénégal di laalante wala farak jànq yu tasee Gàmbi laalante ci ñaari dëkk yooyu xam nga ñaata nit ñooy jàll féeri toog fële di la laalante ay fan keneen ba pare dugalante xaalis ak laalanteeg yooyu ñibbi xam nga ñaata nit ñooy def loolu ci ñaari dëkk yooyu su féeri bi doon waxaa dina tukki féeri beeg gaal yee yi noo booda bi bu doon wax dégg naa ngay mën a drive sax dem ci yeneen lifi nii ci ci fi ñuy dawalee noonu dugg Sénégal xaw ma nan waa tàppate leen thank you so much li ngeen foog ne moom la moom la lii doo lii dugu ko lii moo raw li ngeen foog fuufi junni yoon du mbiri caaxaan ak comédie de waaye nag ñaanal leen ko mën na see mucc kaso man maa foog ne fa xam nit ñoo xam ne yàlla bu nee duñ tëdd kaso fa ñuy def yu bonta duñ tëdd kaso bu ñu reyee nit it ndax du nga génne ko xam ne fañ koy tuumaal mu tëdd kaso te fekk defu ko ndeysaan Angleterre fi fa fi xam di xam Amérique ñu tëj nit ñaata at ba mu béjjaaw ñu génne ko te defu ko borom di jooy code bi di leen balu xàq ne am sorry mistake la kon nag man maa gëm genuine li ne kaso dëgg la yàlla yàlla bay sa tool ngay uytu of course yàlla jox la ay bët booy xool tali bi waxuma la nga dem di def loo war a def bu tëddi kaso naan waaw bu ko yàlla tuddut waxuma loolu de waaye li may wax mooy kaso yenn yi bu ko yàlla tuddut doo fay tëdd bu ko yàlla tuddee na nga fay tëdd yéen yi that's the truth thank you tàppote leen rek bu leen ma baax ak suma noon yi suma noon yi nga dagg seen baaraam yi moo leen gënal ñu tàppote xam na suma noon yu bari yuy seetaan fi ne yoo xam ne boo leen waxoon ne ma ne sa baaraam yi ndax ma taaj ko fi mu ne nii ci ci ci ci mat ci dagg ci teg sa baaraam yi ci barab fu dëgër nii jël semmiñ këtt ko wala nga tàppateel ami vidéo boo bugg fa ñuy wax ne këttal suma baaraam yi barke salaatu faatiha këtt baaraam yi muy tëb moo leen gënal nga ñu tàppale su ma noon yi dëgg laa wax de dafa ñuy dugg nag xamee seen beneen profile dugg nag ne cop jokkoon ci biir vidéo bi di ma xool ñi ni te tàng xool te bon waaye sëpp naa leen allahu du ngeen ma bolo ngir yàlla suma vidéo bi ngeen di jonkoon ne ni mel ni ay tan yu sibbutu baaxul ci suma vidéo bi te du ngeen tàppate waa ma continuer si li may wax gi ngeen ay sa mii lépp lu ngeen foog ne moom la dugalante góor gi lu ko raw la dugalante góor gi téeméeri million dégg nga ko mën naa xam loolu la mën naa xam ëpp na ko ndax góor gi mu ne fañ waroon di def ay business yi euh, lifin fañ dugalante ay business yi fa xuuteeg lim ko doon may rek xaw ma lan lan taxawal ma waxal leen leen gis ngeen góor googu xam laay mbay xam laay càmm moom xaar ma indiwaat ko sax ku dem téeméeri million bi bu dee moom la jox ay Aïssa ku dem joxul jabaram téeméeri million te mu nga xamee jabar ku xam ku xam jabaram na wa ka saaraxay lii baro la ak góor googu ginga ko tàppote leen ami bari ay xaw ma lan ami bari xam-xam foog naa xam-xam la bindaay doon bu dee loolu nga wax kay waa dëgg la kay kaar kay waa dëgg la tàppate leen rek gi ngeen Ablaye Thiam mii ne feteeg ni lëggu si butu nii mel ni béyu xar muñ mbéj nii ne feewu ni xar mu soj nii si kiñam bi ni naar bu si butu nii duut naar sax naari yi fa ñu am si kiñ bu gudd mais ni béyu si butu rek ci góor ñu wig ñu caga ñi may xas ci la bokk ñi may xas bët bu seet xat yi yëpp ne leen ba leen caga ba leen njaaloo ba leen bon kii mooy seen baay nag façon yi góor ñooñu xam nga tax may xas góor ñuy fa ñuy jël ak gi nga xam laay mii leer na ma ne million yoo joxu ko jabaram laaj ko ko xam jabaram fa ñuy xam janq si biti xuulu ko di ko jox ay million aka di ko wax seeni secret aka ànd ak moom di tukki jéen jànq yi fañ leen di xamal lu leen seen jabar yi du xamal tapoté leen vidéo bi te séddoo ko rek jërë jëf seen jànq yi fañ leen di xamal lu leen seen jabar yi du xamal ndax yéen a ma dégg jànq yoo xam ne ëllëg mën ngaa duuloog ñoom comme nii borom di la kaa mbala weer sa nataal wala toroxal la jànq yooyu ñoo lay xamal lu la sa jabar du ma sa xamal ba àddina tukki ndax jànq bi ngay gën a xóolu moom ngay gën a laal-laal yu neex moom ngay gën a jëndal ay bagage moom ngay yóbbu Dubaay moom ngay yóbbu Tokki moom ngay yóbbu Sénégal wala Nigeria wala fu ne wala di ko jëndal ay bagage ay oto ay kër ay lu ne sànni sa jabar ak sa doom yi ak sa mbokk yi sa jarbaat yi suñ xañee duñ reer daal sax duñ ko xam bu julli jotee tàppate leen rek xawma lu kii bind nii naan xawma lan lan la tàppate leen bu leen ma baax ak suma noon hippee amat I don't know whether he paid Ahmad or not. Maybe. People can pay people to talk, but I've never been paid to talk, so I don't know how genuine that is. But I know people like Makisalo was paying people like Adam Ofoso for him to be able to support him, looking at him shooting people every day. But anyway. <clears throat> Tapotele. Gis ngeen kii milliards yim jox kii te kii buggul ko te leeral na ko ne kii bugg ko leer na ma ne joxut milliards yu xem noonu jabaram ndax yéen ngi dégg li may wax nii te moroomam ñu bari ñoo tax may wax du moom rek de lépp lu xew lu ne waxuma pour kooku may wax pour nit ñi nga xam ne ñoo mel ni kooku wala ñeneen ñi ko war a topp mel ni moom wala ñeneen ñi war a dundaloo gi ngeen kii ay milliards yim jox kii di forcer mbugeel di jënd mbugeel ni kuy jënd màngo bu ñor ndi fa feebar te wéte di mbugeel kenn du ko jënd ni kuy jënd dàmb ak màngo rek sëpp ko ñu ngi ko yëgee ba doo nelaw la ko boroom yëgee ba du war a yëgee ba du nelaw ñaari yëgante yooyu ànd def nii ngeen boole ci gore yërëmante loo loofante kon loof bi mën a continuer di di neex deret boo meree sax nga xam fooy xem ci mer mi su soo gisul borom sa nga xam looy def xam fooy xem bul def lu yàq loof bi you know di ko toppatoo daal loof bi continuer waaye loof bu ñuy waaxu jënd ko ni kuy jënd dàmb ak mango baña maasam yu wetuñ nag góor ñu wede di ñu ne ci askan bi nag ñooy ennemi askan bi aka ñoo bëri nag góori Afrique fukk boo compté ñaar ñaar rekk am original yuur gu wet surtout juróom yi moom seen yuur gi fa nëb fa ñuy forcé loof jënd loof mbala ñaar yii lañuy def forcé loof jënd loof wala jos forcé loof mbala nga loof leen ñu loof la mbala jos nga loof leen ñu yàqal loof bi di njaaloo ak def lu bon ba loof bi yàqu ak ndax naqadi deret ak a fen ak def yeneen yàq loof bi de bi daal néew leen di tàppote de pourtant xaw ma lan teeli men xaw ma lan lan lan néew leen di tàppate de too beautiful thank you so much tàppatewu leen daal xaw ma koy wax too beautiful man ngay waxam nataal bi ngay waxam but thank you tàppate leen waa jërëgéen jo tàppate leen gi ngeen góori askan bi nag seen bañ nit ku ñuul ki bu set ma di leen ko wax bañ nit ku ñuul te ñoom ñu ñuul ba mel ni kii wala gën a ñuul kii ñëw lu ci ne xanaa kon yow du woon nit waaye nit ku bañ boppam du mën a bugg keneen xam nga tax nit ñi bañ nit ku ñuul fañ buggut seen bopp even tubaab yi réesis sax laaj ko ku la nee boroom xam-xam yi soo gisee ngay bañ nit bi ko fa xees wala fa ñuul wala sinwaa la wala nangam bu ko wéyee dëgg des nga bañ ko daal bi ko xeet bi la wala couleur bi la eh, maa leen gën wala eh. wala xeeb borom bi ko sa couleuram wala xeet bi mu waaye defu dara waaye loolu rek a nga xeeb ko ngaa bañ sa bopp buggoo sa bopp nit soo xamee genuine self love nga loof sa bopp dëgg keneen nit kuy nokki ni yow nga koy loof ñaar yooyu yëpp a link xaduna si fa xam yoo xam ne dañ connect bugg sa bopp genuine self love ak bugg nit ku mel ni yow jos bi ko xam ngi nekk nit di melax xaw ma di nokki comme yow deretam ji di daw comme sa bos yëpp a link dooy xool ni rek bañ ko jos because nangal nangal di reason pour pour bañ ko fa no reason man ngaa mere nit bi ko fa def dara su ko wéyee dëgg na nga ne kii nangama nangam laa ko si bi wala kii nangama nangam warutoon a rey kii wala warutoon a def li xam nga li ma wax fa xuuteeg bañ nit bañ nit ko lu bon wala jos bañ ko xeeb ko because you know wala tubaab la wala la wala nii wala fa nii nii you know nit ko xam genuine self love boppam duy mel noonu sa buggeel bi nga xam sa bopp genuine li moom ngay jox yeneen doomu adama njaay yi nokki ni yow because ngay xam valeur yi nit because ngay xam sa own valeur te soo xamee valeur yi nit doo ko xeeb du you understand this ngay xam ne nit ñëpp xam valeur deret ji benn la bakkan bi benn la tànk loxo nopp si kin bakkan bu gémmiñ yëpp benn la ngay dem kama ngay nelaw ngay xeexu lépp ngay ñaq ngay lépp lu kële di def ngay lekk ngay xiif lépp lu kële di def nga koy def soo noo koy gënee leneen looy def lu mu lu mu doon thank you so much tàppate leen rek waaye gi nga nit ku gëmul boppam fay xeeb nit ku mel ni moom nit ku ñuul gëmul boppam ñun nit ku ñuul fay xeeb suñ bopp ba xeeb Afrique moo tax Afrique du développe ñun ñëppay daw ñëw bitim réew te fekk ñu ngi daw Afrique du ma sa fay xeeb suñ bopp bay xeeb gune moo tax ñuy dóor gune tocc ko xamuñ valeur gune fekk ñu ngi dóor gune Afrique du ma sa barke ba àddina tukki dóor gune tocc gune métital ko moo waral mag ñi màgg di métitalante nii ak leneen ak leneen moo waral Macky Sall feteel gune yim defoon noonu moo waral nit ñi agré agressé ka sëy yu bon yeeg nit ñi métitalante ci kermango yeeg fu ne fañ leen di jàngal métit boobu bañ duxee gune gune gu ndaw ngay kete kete nopp ya dóor ko bi max ko xëj ko saaga ko gune nga téen la nii ndeysaan jaaxle yow bëgg a dee nga di ko tocc di ko dóor moo tax nit ñi màggaame naqadi deret ba pare ñaari façon nag la nit di xam bu dundee duur yu bon lu ma wax boole ko si lu am fayda lu ma wax boole ci loolu ku dul wax loolu rek pare ko pour dimbale askan bi ndax askan bi ba tey ñu ngi def loolu te fekk ñu ngi def loolu duñ ma sa barke wala jox duñ xam lu tax ñu mel nii again maa ngi leen koy leeralal gune boo koy dóor su la dégluwut nga dóor ko mooy ne soo ma dégluwut defoo lu ma bugg wala nga def mistake ma laa war a ponis ponis bu bon jàngal nga ko loolu waaye leneen li nga ko jàngal mooy borom fay gaaw a mer ak di yërëm boppam loolu la ko métit woowu di jox surtout bu dee dóor yu bon la ak bu dee nga ko continuer di ko def ay xat taf nga koy jàngal xeeb nit ak métital nit surtout bu dee nga see boole dóor yi du jeex xaste yi du jeex di xëlëb xëlëbee gune gi daal jógal fii yow nii mais ni gune gi xaj la daal ba pare su borom màggee du respect nit ni nga koy def noonu moom lay def nit ñi ah leneen lu xam nit du ne soo koy yar sa kàddu gi ngay wax rek ak jox ko lekk mu lekk mu jàng yooyu xam ko loolu rek la déedéet yeneen yi ngay def nii fa am solo fa koy jàng xam ko soo ko bëggee soo ko bëggul waaye loolu du la neex nag waaye dana ko xam yaa ko ko jàng tàppate leen de moo tax nit ku ñu soxotee ni te naqadi deret te mën a defante nag fa lay rendi waaye du ba loolu du leen di jaaxal si ñun direeku ci li ñàkk fayda defante ba ñàkk tooy xeeb jam nit ña paaka sotti ndox mu tàng nit ña tëddi kaso lañ nit ña tëddi kaso ci li ñàkk fayda mag yi jëmm di ko def ñu ay doom noo du leen di jaaxal si ñu nit ku ñu forse loof forcé xaritoo forcé dara daal ak féet di forse ne man maa ci kaw su may dee sax comme ñun nuñ mer rek you know leen di jaaxal jàng leen ko dangeen ko gis xam nga fu mu jógee dóor gune gune boo koy dóor su magee fay jàng ne boo ma dégluwut ma lay mitital bala nga def loo waxta de ma lay mitital benn ba pare ma lay jooj mooy xam nga yaa ngi koy jooj di ko mere di ko xas xanaa lu tax nga def lii yow nii léegi moo tax ñun ñu mën a jooj nii si butu ta feebar nii ba pare borom su magee fay yërëm boppam ba pare di naqadi deret gaaw a mer ak yërëm boppam léegi ku yërëm boppam fay fay wut lu ko bégal ndax yéen ndax sadness bi naqat bi sadness bi tax muy yërëm boppam noonu génn léegi lu ko bégal loolu moo tax ñun ñuy foo ko si lekk laalante loof ak xalal ñun nit ku ñuul moo tax ñuy focus yi laaj ko ku la neex nit ku ñuul yàlla Amérique sax di seen problème lañ xam ñoom it fa ñuy dund dóor gune ak a dund làmbatu gune ak xam di seen problème bi ñu xam nii muy problème bi laalante naqa di dare rayante ak lekk ak love problème bi ñu xam nii ñoom ñu ngi ko amee fees fa dem fañ ciy def ay vidéo nii di wax ñun duñ fajoom te ba tey ñu ngi dóor gune nag moo tax lu ma wax boole ci loolu doo mën a ne ci kaw di wax pour mu faju te si ron mu ngi commencé continuer di màgg di mel ni si kaw nga wax fii ba bugg a dee fii maa raw fii nga wax fii ba bugg dee fii maa garaw fii bàyyi foos ngay wax lu waral fii soo waxee fii ba pare nga wax lu ko waral pour ñii ñu kar leen dimbale leen ba buñ màggee buñ mel ni yu si waree mi man noonu laa dee defee wax du may wax si ngelaw rek loolu du ko faj ngay continuer di wax ba màggat gune yi màgg def lu raw li xoolal gune yi léegi niñ mel rek di jamante di def yu bon ba raw mag ñi ñoom ñu bëri dorog beeg yu bon yi gune yi gune yi ñoom ñu bëri fañ mel ni seen ennemi bopp lañ surtout gune yi ne Afrique nga xam ne dëkk ba xamul dara gune yi war a gën a yaru war a gën a focus euh, focus si jàng bu dee xam nañ jàng ne gune yu bëri ba tey xamul jàng Afrique te bu seet ma wax ko ci vidéo yi kii milliards yim jox golo gu lakk gii nga xam ne bugg ko just because fa xees mënoon na cee hubbi school tabax ko dugal ca gune yu bari ñuy jàng firi ci ngelaw ay fukki at yàlla ñaar fukki at gune jàng ba wàcc duñ fay teacher pour nga fay ko Afrique du dara surtout Gambie gàmbi pour nga fay teacher buy jàngal xale ay 50 pounds sax nga fay ko teacher si weer bi laajal nit ñi bu dee may fenn Gambie teacher ñaata lañ di am si weer bi Gambie xamut school yu bari te school ya système bi baaxut school yi nguur gi Gambie bu bu set ma koy xalaat di mer gune yi fa ñuy màgg mel ni ni ma mel bi ma màggee màgg seen tur duñ ko mën a bind nga màgg di jàng loolu ñu bari duñ ko def man ma am sax ma màgg jàng ñu bari duñ def loolu suñ màggee duñ xalaat jàng ba tey moo tax ma delluwaat di gën a jàng kan mooy def ñu bëri duñ ko def bi ba tey mu ngi xam nit ñu bari ñoo xam ne seen tur mënuñ koo bind askanu Afrique tout fii ba Nigeria surtout Sénégal ak Gambie fees fa del gune yi góor góor la war a màgg turam sax du ko mën a bind ci xara français wala anglais email sax du ko mën a yónnee nit benn document sax du ko mën a read form du ko mën a fiil kaay ma rey la du ko mën a wax surtout fukki at ci kanam jàng ak nu mu avancé léegi surtout fukki at ci kanam xalaatal gune yi fuñ jëm te ba tey gune yi ñu ngi fees Afrique duñ mën a bind seen tut Ablaye Thiam gu caga gi te wig nag jël ay million teg ko ci seen kaw nangam taan wi na di cot coteeg moom di wéy seetaan gu ne ñuy xal ko ca kermango ya ndeysaan lii ñaaw na moo tax ay sa romb ko dem sëy kii xaqi gu ne yam waroon a jox xaalis ba te joxul leen ko tabaxal leen iskul wala defal leen leneen te defu ko moo tax nag ay sa jël milliards ya nag ba pare nag sëy kii man ngay ami ñëwal ma takk la yow la kan xam nga li may wut si góor mbala wala lan góor ak sin waa ma koy bañ góor gu bon ma koy bañ góor gu biddo mel ni Macky Sall ma koy bañ ndax xamoo loolu wala wala déet <laughs> boo ma gisee ma ñaaw mel ni pompe terre toog di waj waji nii ba nga ne nga may ñëw takk ñëwal fii nga may fekk wala fi mu ne axal leen kii rek nag nam baxee xablaay caam xablaay caam di xaru na takk xare ba badar taxaw nàmm jaasi Ablaye Thiam ba mu xamee ne bu ko kii baxee mu nàmm jaasi taxaw te Ablaye Thiam leeroon na ko ne kii bugg ko ba mu moom xool ko rek moom nim mu kii kii moroomi guneem la bugg góor gi Ablaye Thiam a ko mag te kii dégg naa ñu ne xam laa caam fa naqari deret te cagata bon daal fa amee jikko yu bon waaye moom it ku dem xam na jikko xam laa caam bu yàgg noppi ngir xalal ji di lekk ba xolam sedd mu soog ko suur naa waru koo def loolu loolu dëgg la waaye xam caam ba tey mooy xaj pro max bi xam nga tax ma la ko xam laa caam moo mag kii fuuf gën ko war a ñaw xel xam laa caam mooy góor te askan bi ñu ne góor xam nga tax ma ne gën koo war a ñaw xel waxuma ne ku mag nit moo ëpp nit xel man man nit ku wér laa waxuma lu waaye askan bi ñoom ñooy wax ne jigéen fa weenam yi fa sëgg xelam mi sëgg xaw ma naka naka naka góor moo ëpp jigéen xel démboo du démb bot fan si gannaaw am na góor gu dugg di ko wax si vidéo yi di weranteeg man waaw góor moo jigéen xel di fàtte ci digg live bi nit ñi di ko gis laaj ko nit ñi bu dee may fen tàppate leen live comme nii góor gi dugg nii di wax faydaam ba mer ne góor moo ëpp jigéen xel yéen góori Gambie Sénégal xaw ma ndax yeneen góori Afrique yéen loolu lañuy ñuy xalaat waaye foog naa yéen ñu bëri la ñi nga xam ne mën ngeen a gën ci Rasulullah xanaa xamoo ni fa am góor ñu mën a gën ci Rasulullah ne góor moo ëpp jigéen xel <laughs> surtout góori Gambie ak Sénégal fukk boo compter juróom-ñeent yi juróom-ñeent laa man nañ ko gëñ ne góor moo ëpp jigéen xel te benn bi nga xam ne bokk ci juróom-ñeenti yëpp fañ koy ree bay waaja dee ne benn bi fa dof dafa ragal jigéen dafa yambar dafa te moom du góor ndax góor bala ngaa yëg ne yow góor nga ngay ngay déreeku di jaay jigéen ñi doole ak ëpp xel ak gën koo donit ci ngay yëgee ne góor nga soo ko waxee ne ko xëppoo ma xel xel yee xuute waaye benn xëpput benn ni ñuy xalaatee ni ñuy opérer nag yëpp xamut exactly waaye benn gënut benn mu ne lan non xanaa gisoo ñun góor ñi nii naa keroog xam nga lu góor googu doon wax boo tasee jigéen ci palaas sax góor nii la ñuy njëkk xajal xam nga lu muy wax ji góori Afrique yi jikko Afrique nga xam ne jigéen ak xale ci gannaaw xew sax jigéen ak xale ci gannaaw duñ lekk surtout xale lu ne rek ci gannaaw ak beneen bi mu ne lan lu tax yàlla wax ne na nit yow na nga déglu sa jëkkët yow na nga déglu sa jëkkët gisoo yàlla ni waxee loolu bu doon yéen yéen a xel yàlla du wax loolu loolu i jox diine islaam wax la ne nga déglu sa jëkkër surtout jëkkër ji ko jar ne loolu rek ngeen di bugg a li ngeen di bugg a yuus ci diine ji mooy déglu sa jëkkër ak takk ñaareel ñaari yooyu xool leen fi ne li ngeen may seetaane te new leen di tàppate vidéo baa ngi ne yereng thank you jërë ngeen jëf yéen ñi tàppate yëpp xam na yéen ñu bëri ñu may xool yi te tàppatewu leen te yéen ñu bëri ngeen di def vidéo su ma xarit ngeen si tiktok bi def kati vidéo ngeen gis naa leen seen tur yaa ngi nii ngeen di ma seetaan nii te du ngeen tàppate képp kuy seetaan sama vidéo yi te yow la ne doo tàppate yéen ñu may seetaan mënu leen a biisee noonu man li may vidéo fa bëri du ne saa wu ma ñëwee yéen a ngi biisee wa mënu leen a nokki du ngeen tàppate déedéet ngeen maa bañ ta soxot te bi ngeen di yàq képp kuy ñëw ferenku laay suma page bi ne jénni tan mu sibbutu te doo tàppati te xam nga loolu baaxul ci pej bi lépp looy def te bëgg mu dox soxot gi nga may jox yal na la xëy si gi nga ni ngay ñàkk a dimbalee pej bi te di ko toog di ko yuus dixu dixu si pej bi pour mu yàqu bés boo soxlaa ndimbal ci yàlla ak ci àdduna si ak si nit ñi yal na soxot ñàkk dimbal bi ngay jox pej bi xëy si la man li may vidéo yëpp mënu leen a wax ne saa ngeen may seetaan ngeen a biise mënu leen a biise noonu président sa waxu dëgg te yéen ñu bari yi surtout yéen ñu def suma xarit surtout yéen ñuy def vidéo di post suma ko gisee di ko like lu ma leen def lu ma leen def lu mu ngeen di ñëw ma gis leen ngeen dugg ak seen profile yi nii ne diis ma gis leen ngeen toog ne yi rek mel ni niw bu dugg du ngeen def nii du ngeen def dara te ma di leen gis si yeneen live ngeen di seddoo di donner di like di kaf di ree di yónnee xol su ngeen ma bañee noonu du ngeen ma bolok waaye suma xolof yi da ngeen ko déglu suma time bi da ngeen ko jël di ma xas di ma bulli di ma tuutil ne da ngeen di toog yàq suma page bi du ngeen ko dimbale képp ku may ñëw suma page bi pour tooñ ma yàq suma page bi ne dégg doo tàppate di ma jaay doole di ma wan ne internet la maa tey sëpp naa la allahu te lépp looy def ëllëg buggu mu xam ndimbal ni may ñàkk a ndimbal yal na nga ko ñàkkee ndimbal su boobaa képp koo xam ne fa biisi digganteem ak bàmmeelam fa biisi mu ngi si liggéeykaay wala mu ngi def dara mënta def nii xam naa loolu loolu taxul may wax xaj yi may seetaan te di ma jaay doole suma internet bi suma noon yi may seetaan ñooñu laay wax xam nañ seen bopp ma continuer li may wax mais ñoo dem ndax suba may jàngi nag you know gi ngeen kii waxuma ci ngir moom waxuma ci ngir Ablaye Thiam néew ma di wax comme yeneen gàmbee ni di xuloo nga saaga ndey ak wax di mer defante tubbi live nit ñuy wax di xëcc xuloo eh, yow kii nangam waruñ ko wane jaaba Sénégal nii yow kii ñun jigéen dañ war a support yi coodan nii defuma jikkoy naafeq de te waxuma pour ñoom ñaar ñi xóor na yàlla unité ma maanaam moom ak Ablaye Thiam waxuma pour moom ak Ablaye Thiam barke salaatu fatiha may wax pour nit ñi mel ni Ablaye Thiam ak gune jigéen yi ci askan bi oytu leen gune góor sax oytu leen nit ñi mel ni Ablaye Thiam buy borom jigéen la sax oytu leen góor ñu mel ni Ablaye Thiam ngeen di jàng seen jikko yu bon yi oytu leen jigéen ñi mel ni Ablaye Thiam di leen jox xaalis ba pare di tëdd ak yéen gune gune góor yéen a ngi dégg li may wax wala lan bi ko neexuma di gis ngeen tàppate vidéo yi thank you so much yéen ñi tàppate yëpp su ma noon yi seetaan bu leen fàttali ma leen di wax saa yu neyee muy képp koo xam ne yaa ngi ñëw sama page bi French Live ne doo ko tàppate lépp looy def te soxla si tàppate ak ndimbal yàlla soxoot gi nga may yër xëy si la ya bu leen fàtte loolu de loolu moom bu leen leeree rek muy jàmm du ngeen ma bolok du ngeen support waaye ma it xam naa sama gémmiñ ngi wax leen ne sëpp laa leen yàlla yónent ba te doole ji ngeen may jaay di ma wan ne internet la naa la seetaan bàyyi force si firi te yàq sa page bi mooy duma ma ma séddoo du ma donate du ma def dara su ko defee page bi toog yéen ñi may jaay doole googu di xeex suma pay bi di xeex suma liggéey bi lépp lu ngeen di def loo xam ne ngeen soxla ndimbal ci nit ñi ak ci yàlla soxot gi ngeen di jot suma vidéo bi yàlla na leen xëy si képp kuy def loolu ku ne xam nga sa bopp ma continuer suma suma vidéo kii waxuma ngir moom ak Ablaye Thiam yàlla xam na ko mais wax pour gune yi mel ni kii oytu maase Ablaye Thiam bu jigéen lañ ak bu góor lañ maase Ablaye Thiam na leen gune góor yi oytu buñ roy si ñoom buñ nangoo xaritoog ñoom yenn xaritoo yi buñ nangoo dugalanteeg ñoom maase Ablaye Thiam na leen gune jigéen yi oytu seen xaalis bi daf dee tempting fay yomb pour nga jël ko waaye bu ko jël fay ànd ak feebar ànd ak xalkare ànd ak rëccu xànd ak façon yii ak lu raw lii xànd ak mën nañ laa rey sax xoolal lii rek xóor na ma ne ay Aïssa bu xamoon ne fii lay mujjee kii di ko def ndax du thank you so much yéen ñiy tàppate jërë ngeen jëf Aïssa bu ko leeroon ne su jëlee million yi fii lay mujjee ndax dana ko jël yéen ñi nga xam ne yen a ngi jël ay million fi ne nii wala yéen a ngi war a continuer di ko jël lu ngeen di jël lu mu tuuti tuuti lu ne bu leen ko jël gëm leen seen bopp su ngeen di jaay ndox sax xem ci loolu dugalanteeg góor jos bi ko ngeen a bugg a dugalanteeg moom pour sëy ak moom te bu leen jël sax xaalisam yenn xaalis yu bëri fekk ngeen sëy ak moom bu ngeen sëy ak moom wala ngeen pare pour sëy ak moom mu ngeen mu leer leen ne loof ngeen kii du ngeen ko jàmb su ngeen ko déggul du ngeen xam jàmm loof ngeen ko ngeen soog a jël askan bii ñun duñ ñuy jàngal gëm suñ bopp ak ñàkk jël ci góor famille yu bari duñ la ko jàngal das da trop waaye baaxut foo ruslu pour ñu wax ko nag waaye baaxut fuñ ko jàngee suñ maam yi daan may jig eh, góor guñ buggut ak suñ yaay yu bari ak ñun ñu bari sax jaar si ba tey ni ñaa ngi siy jaar tëdd koo buggul tëdd koo buggul rek la dugalantee koo buggul dugalantee koo buggul rek la fay damej góor gi damej jigéen ji damej gune yi gis loolu yéen a ngi jàngal gune góor yi ne leen góor man ngaa jël jigéen jox ne moom bu buggut la te moo la gën a nekk xale xale bu ndaw bu rafet nga jël ko yow mag mi di tëdd ak moom loolu ngay jàngal góor gi loolu lay miin su magee fay dem di wuti góor ah, sori jigéen jox joxane moom moo ko mag te jigéen ji nobu ko su fekkee mënuñ koo may jigéen ji si firi walla may ko si lu yomb fu koy jënd ak xalal fu mu ko jàngee mag ñi mu gisoon ñuy xam jabar yu ndaw jabar yu rafet jabar yoo xam ne bugguñ leen yéen ñëpp yéen a ngi ne teg vidéo baa ngi ne teg teg nekku di am benn tapoté nekku di am benn like nekku di am benn séddoo te loolu baaxul si page bi bon du tere ma def suma liggéey bi te du tere ma wax leen ne suma noon yi may seetaan lépp lu ngeen di defal la bugg ci ndimbal yàlla na ñàkk ndimbal comme ni ngeen may ñàkk joxe joxee ndimbal ñàkk a jox ndimbal gi ngeen di jox suma page bi yal na leen xëy si bés bu ngeen di def dara bëgguma am ndimbal yéen ñi seetaan suma page bi te ne mukk du ngeen tàppate du ngeen séddoo waaye da ngeen dem si yeneen xaj yoo xam ne ku ma fayoon million du ma def seen façon vidéo yi ngeen tàppate séddoo waaye man du ngeen tàppate waaye da ngeen seetaan nag bàyyi force di ma jaay doole bés bu ngeen di def dara bugg a xam ndimbal soxot gi ngeen may yót yal na leen xëy si bés bu ngeen soxlaa ndimbal ah man ngeen maa bolok forcé wu ma leen xojuma leen suma téléphone rek laa taxal jënd ko di fay suma internet weer teg suma nangam bopp toog di wax suma gémmiñu bopp nga ñëw dugg toog yaa may tooñ léegi ba pare nag ni ngay seetaan baay force te doo tapoter doo like doo def dara te lool baaxul si page bi xam nga ko waaye nga koy def pour yàq page bi yàq suma liggéey bi tooñ ma képp koo xam ne ngay ñëw suma page bi di ko yàq mooy nga toog te doo tapoter te xam nga ne TikTok bu guddloo lépp looy def ëllëg loo soxla ndimbal ndimbal gi nga nii yan na nga ko ñàkk yow it bis boo ko soxlaa ah te du ngeen ma bolog rek waa maa ngi continuer li may de du ma mën a nekk di riir seen commune jéggal leen ma gis nga kii ak moromam ñu bëri xam ngeen fu ñu jàngee nekk ak jigéen joo ne jigéen jooj buggul leen ñuy jënd loof bi ci suñ maam ñi daan takk xale xale bu ndaw bu rafet boo xam ne xale bi buggul leen billaahi wallaahi tallaahi fa la lii cosaanoo xamut feneen fu cosaanoo fu dul foofu suñ maam ñi daan si xale bu ndaw boo xam ne xale bi buggul leen ida fañ fañ fañ fañ dem si xale bi may ko ay ay ay bagage may ñu noo seen may ñi may gu njëkk ak yi ñuy laajte noon walla ñu jos xam ko sëy bu yomb ay doon noo xam nañ xale bu ndaw bu leen buggul te xale bi mu ngi nii nekk ak ñoom di sëy ak ñoom fa la ñuy jàngee xam bu ndaw bu la buggul nga jënd xale bi jox ko ay milliards bala nga nax ko dugalanteeg moom tëdd ak moom ndax yéen a ngi dégg li may wax because yéen a ngi mel ni ay niw yu seetaan fi mu ne nii yéen a ngi seetaan ba tey xaw ma ñaata téeméer ñeenti téeméer gisuma benn like gisuma benn xol gisuma benn dara TikTok amul benn problème de yéen yéenay seetaan vidéo bi noonu rek ne teg du ne TikTok fa am problème dara jotul TikTok bi maa ngi gis suma bopp maa ngi gis yëpp ngi ku dugg maa ngi lay gis nga ni ngay yëpp TikTok baa ngi dox yéen yéen yéen yéen ñeenti téeméer nit ñi seetaan yéen ñëpp yéen a néew di tàppate yéen a néew di like yéen newut néew su ma noon yi ma wër nii fi mu ne nii su ma yi ñoo ñëw wër ma nii waaye tiktok bi dara jot dara jotu ko waaye again maa ngi leen di fàttali képp koo xam ne su may def vidéo nga ñëw taxaw tiim ma ne doo tàppate doo séddoo waaye nga may seetaan bàyyi foos yàq suma page bi koñe ko bu ko tiktok yóbbu fen nga poñe ko nii toog lépp looy def ëllëg loo soxla ndimbal yàlla soxot geeg koñe bi ngay def suma vidéo bi xëy si la soo ma bañee noonu nga bolog ma dem maa gën a tuuti si defkati vidéo yi ci askan bi waaye nga ne man suma liggéey bu gore bu dëgg bu baax bii moom ngay ñëw di ko xeex romb yeneen nit ñi nga xam ne seen vidéo yi bon yi boo ma fayoon ay junni sax man ami duma ko def nga dem sa ñuuña di like di séddoo di tàppate di dimbale seen vidéo yi muy naaw di dem ay junni junni view nga ñëw si man toog mais ni ngaana gu feebar leem sa loxo yi def nii di ma bulli di ma ree di ma tuuti di ma xoñoñal naqat bi ngeen may xeen suma vidéo yi di ma ñaawal di ma bulli yéen suma noon yii ak koñe bi ngeen di koñe suma vidéo bi yal na leen xëy si bés bu ngeen soxlaa ndimbal si dara loolu duma ba di leen ko wax duma ko ñaan seen gannaaw de ma koy ñaan ba ngeen dégg ko foofu laa tollook yéen ndax suma liggéey bi bu ngeen ma doon rendi duma ko ba xam naa raay te choose pour def vidéo comme keneen nu mu koy cuusee maay fayal sama bopp internet maay jëndal sama bopp téléphone dara du ngeen ma koy jëriñ dara dara lu may jaay sax du ngeen koy jënd noonu ngeen ma bañee dara te man maa gore nag duma leen sonnal si dara it xam ngeen ma man su ma neexoon ma cuus di wax leneen di def leneen di ci jëlee ay million gis naa nit ñi koy def maa cuus di féetoog dëgg gis ma dara si vidéo yi sax su ngeen ma yërëmut ba ma waaye na ngeen di ñëw toog suma page bi di seetaan du ngeen tàppate du ngeen seddoo du ngeen like pour page bi bu mu xam dara pour page bi yàqu képp ku may def noonu di ma ñëw suma page bi di ma tooñ di ma bulli di yàq suma liggéey bi sëpp naa la yàlla yonent ba te lépp looy defal lëg loo soxla ndimbal yal na ñàkk ndimbal ñi ngay ñàkk a joxe bi ndimbal yal na nga ko ñàkkee ndimbal saa wa soxlaa ndimbal ci nit ñi wala ci yàlla <clears throat> ndax yaa may tooñ suma téléphone yi bopp laay bës dugg nga def nii ba gis ma toog mbala nga follow suma page bi sax far su may ñëw nga ñëw su may ñëw nga ñëw xojuma la ne la ñëwal seetaan baa nga dee yaa may topp nii sa tiktok yi bopp nga xam ma xam suma tiktok yi bopp ma bës suma vidéo dugg nga bës sa vidéo dugg si man di ma tooñ di ma ñaawa di ma ne internet la maa tey internet la mënoo si dara kek kek nga stress nga depress nga bon kek kek képp kuy ñëw suma vidéo yi di ma tooñ di ma buli di yàq suma liggéey bi ne doo ko tàppate doo ko séddoo pour mu koñewu ni ngay koñee suma vidéo bii yàlla ëllëg looy def bëgg mu dox yàlla na ko xamee koñe bu bon bi ngay def ni képp kuy ñëw sama vidéo bi di fi indi sa métit ak sa soxot ak sa bon yàlla looy def ëllëg bugg mu xam ndimbal soxot geeg mbon geeg métit bi ngay yóbbu vidéo bii yàlla la xëy si waaye sama liggéey moom duma ko bare loolu moom bu leen muy jaam liggéey bi may def firi mooy wax suma askan bi suma dëgg wax suma askan bi lu ma foog ne moo tax ba duñu xam jàmm ak yeneen yu baax yi ñu war a def loolu moom bu ngeen ma doon rendi sax duma ko wax non dugg leen suma jëkkër dugg leen suma baay dugg leen suma ndey su ma ndeyre moo ma mën a xaaye yenn yi because bu ma paxaab imaam bu doon lonk noonu si mbiri xaraf moo ma ko xaaye moo tax gisatu leen ma lonk ko waaye yéen golo yi lakk yi ñëw di ma tooñ di xeex suma liggéey bi ne moom ngeen di koñe du ngeen ma teree def vidéo ngeen di gàddu suma xaq rek waaye du ngeen ma teree def vidéo continuer lu ma doon wax again bala maa ñëw dem ndax may tëddi suba iskul la gis ngeen kii maasam yi fiñ jàngee leen buggut di jënd loof bi nekk mooy suñ mag suñ maam yi daan takk xale suñ waajur yu bari dund ko ñun ñu bari sax ñu dund ko comme niñ ma mayeewoon paa boobu ma nekkee xale fa la ñuy jàngee loolu bët bu set ma di leen wax ne baleen tëdd ak gune baleen bugg gune te gune yi nañ gëm seen bopp ba buñ nangu jikkoy xaj jooj ñetti kàddu yi sa saa yi ne ma di ko wax di leen wax ba leen njaaloo baleen di sëy farantu ngeen ni maa yabaate sëy di farantu bi may xeexat yi yëpp moo waral lii kii fa xamee jabar ak ay doom di nekk ak kii di ko jox ay milliards te kii nëbbu ko mu leer ko toog ba léegi mu naan kii fa ko xamee ay nataal ak kii fa ko lekkal ay milliards ak di ko yóbbu police di ko yóbbu tribunal doomam yi di ko dégg jabaram di ko dégg noonu jabaram yi di ko dégg njaaloo ma leen di wax ne ngeen ba ko te yar seen bopp te def seen bopp mag te xem ci seen jabar yi nit ki lu nga mbinee lu bon noonu nga ko mën a génne waaye ku bip mënu ko sa yaram wi mu la koy laaj ni kuy tux cigarette sa yaram yi mooy miin fu ne mu dugg lu mu gis lu mu bugg rek xam ko surtout ci nit góor gu xam xaalis mooy ennemi boppam xeet bu manti do si àdduna léegi bi ndax jigéen ñi rafet ñi fañ bëri te nit ñi gëmuñ seen bopp jigéen ñu bëri seen taar bi faalewuñ ko borom xaalis bu ñëw ñu jël ko bu ñu xamee feebar wàll la ko nga foog ne fañ wér te wér rafet taxut a xam deret ju wér. yow caga bi ñëw ci moom it ne kenn ku rafet du la raw man ngaa ñëw ak feebar wàll ko borom te ngeen a xamee jabar nag seen jabar laa yërëm yéen fu ngeen jëm ak xàq ji thank you jërë jëf yéen borom xalal yu bari seen jabar yi ngeen leen di wàll feebar ak jos góor guy njaaloo in général fay wàll jabaram feebar jigéen ji sëy di njaaloo sax fay wàll jëkkatam feebar sa doom yi bu yëgee lool fuñ jëm askan bi yeneen nit ñi suñ yëgee loolu war a jàng loolu si yow gune jigéen yi ngir yàlla gëm leen seen bopp gune góor yi gëm leen seen bopp bu leen nangoo nekk ak ay nit ñi leen di jox xaalis di leen sponsor nit ku bugg a nekk ak nit buy sëy la sax na ngeen seet ñaari deret yi seet lu ko jot kenn ku ne def tes nga seet sa deret yi morom gis sa result si morom nii from a genuine place walla ngeen ànd sax defandoor ko moo gën xam seen test yi ndax seen deret yi wér na fóonante sax dee nga ci wàll nit feebar góori Afrique milliards yi ngeen di jël di ko jox jigéen jël leen ko di ko tabaxee ay school di dugal gune yi school ñuy jàng na nguuri Afrique focus ci gune yi di jàng tabaxal leen iskul yu baax def jàngkat yu baax jàngalekat sori ak jumtuwaay yu baax gune yi jàng na Afrique rajo yeeg palaas yëpp thank you so much jërë ngeen jëf di jàngale gëm sa bopp waaye ni ñi duñ ko jàngale suma maas yi koy wax ñu ne dof lañ ñàkk gëm sa bopp moo waral Ablaye di forcer loof ci jigéen ji moo waral jigéen ji nekk ak Ablaye ñaata xat di jël xalalam ji jigéen ji depuis deewaan xam na ne nobul Ablaye billaahi wallaahi tallaahi ñii depuis force dee ba njëkkee gisante problème wiir bés bi kii xam na ne nobul Ablaye te Ablaye xam na ne kii nobu ko ndax dégg ngeen li may wax kii xamoon na ne nobul Ablaye bés ba njëkkee gis Ablaye Ablaye xamoon na ne kii nobu ko bés ba Ablaye njëkkee gis kii ñoom ñaar ñëpp gëma di seen bopp te respectuñ seen bopp moo tax nag ñu continuer nag di dugalante dugalante dugalante dugalante dugalante ba xegg fi ñu xegg nii ba kenn ku ne di waaj a jam moromam moromam paaka fi mu ne te waruñu woon a xegg fii xalal jarul lii dignity nga koy sàmm comme ni ma leen ko waxee ñun askan bi du ñuy jàngal gune loo moo waral gune yu bari fa ñuy dugalante ak kuñ bu gut muy góor wala jigéen gune góor yu bari tey suñ gisoon jigéen joo xam ne fay nanguñu si ak ñoom wala nangu dugalanteek ñoom bari tukki wala yooyu fañ koy def ñu ko buggul sax man ñaata gune góor ñoo xam ne fañ ma bugg pour takk ma pour tukki wala këyit wala dara fa may leer ne loolu lañ ma buggee fa may leer ne suñ ma takkoon juróomi ci kanam may jooy fukki at ci kanam bu dee dana ko xeeg gune jigéen yi noonu te bu dul mbirit këyit sax nag xalal ji noonu seen deret ji ñuy joxe jox la accès si seen deret ji jox la accès si xaw rey bi ko sax xalaal wala këyit te yow sa deret ji xamuñ ndax wér na am déet yow sax xamoo ndax ñoom seen deret ji wér na am déet tey jaxasoo te nga xam beneen part na boo xam ne deret ji fay ñëw ci moom doo leen xalaat loolu yëpp xàq yooyu ak doom yi doom boo ko respecté ngay respecté ki la ko jóor ki la ko jural xamoo loo koy fayee lu du indil ko feebar bi ko yaa ngi génn ci biti di tëdd ak nit ñoo xam ne xamoo lu ne si seen deret ji gis nga leen ñu rafet rek waxuma lii pour kii de xaw ma lu ko dal may just wax in général askan bi lay wax ñun ñëpp lay wax rek képp kuy sëy ak nit kii or not def leen tes man sax fi ne duma nangu kenn takk ma mata ñun ñaar defuñ tes xool risol si nii ba pare nga di ma fóon di ma raay te xooluma ko may xool nga xool suñ wéree ñu soog a fóonante def li ñuy def suñ wérut ah fóonante rek ak laalante rek jar na feebar wala sëy wala opportunité xaalis nanga nanga yow sa deret ji sa sa ëllëg nag sa fon wu gudd sa wér-gu-yaram nag ngaa bëgg ne di naan garab sa giir di dund wala xam yeneen infection di ruin sa immune system sa immune system bi nga di ko ruin because of stupid relationship te nit ñoo xam ne ku ne la ñuy tëddat xuuruñ nuñ manti mel bu dee fañ xam xaalis ba tax ñuy tëdd ku ne wala bu dee fañ rafet ba tax ñuy tëdd ku ne xaw ma ndax kii noonu la melam déet mais jos wax askan bi rek na nit ñi oytu comme nu ma leen ko waxee mais ñoo dem vidéo yi bëggoon mu gudd may yaa ngi suba su paree naa ko def youtube insha allah suba lii liñ ci war a jàngee mooy na góori askan bi jàng nañuy gëmee seen bopp bàyyi loof bi ñuy forcé di ko jënd loof du wut màngo booy dem jënd ca bitig ba dem sa marché ba jënd mango lekk déedéet loof natural la nga koy yëg doo nelaw guddi loolu rek mooy tax loof bi dox te loolu rek du tax mu dox de leneen lii tax mu dox mooy borom loof ba it fa ko war a yëgee noonu keneen ka nga loof noonu ba pare mu yow nga gore moom mu gore foo newut bu mu def loo xam ne boo ko yëgee mer fu mu newut bul def loo xam ne boo ko yëgee mer nga continuer di ko wax yu neex di ko def def yu neex di ko asoo di ko wane ko ba tey bëgg naa la you're safe here you're fine with me don't worry I got you mu mën a relax di la jox loof bi that's another story loolu tam xamu leen ko de ngeen di wax ne bu la nit loo fee rek jeex na moom fay toog mel ni matt rek yow lu la neex def di njaaloo di sonnal borom that's fine ndaw askan bu feebar te dof rek du ngeen wuti xam-xam ngir yàlla lii ñaaw na ñaata at ngeen xam fi mu ne nii caatam wan million bi nit ñi ñëpp ganaar yi sax am nañ xam-xam yéen du ngeen di read book du ngeen di xool ci muufi yeeg lu ne du ngeen di jàng àdduna xool li ngeen dund ak li àdduna si lu ngeen di def nii yéen ñu bari moom a jaaxal ku fekk Ablaye Thiam mi ak moroomam ñi mel ni moom di dugalanteeg maa si ay sa yi ba tey di leen jox ay million di forcer loof ba tey ci atam wan million bi taam na jigéen ñuy def li topp góor gu leen nëbbu diwti jooy ak a jëndal góor ga dara man ami du ma def loolu su ma dugalantee góor lu ma ko loof loof bu ma gisee ne góor ga loofut ma ma withdraw loof bi julli ñaan delloo loof bi suma bopp ne yàlla génneel loof bi ma xamal kii ba set nga jox ma ko ma loof sama bopp xaar keneen ku gën ki fu ma toll di ko ñaan di ko julli du yàgg rek loof bi fay génn ba set wecc taraay leen lool man defee dox si man waaye yéen ngeen a gëmadi seen bopp nag ngeen di fa ne su ngeen bàyyee ko du ngeen xam keneen wala lan yéen ni ngeen def ba gis ko mën ngeen def ba gis keneen ku raw ko lekk leen lekk yu baax rek toppatoo seen bopp te gëm seen bopp toog lii lan la loof loof rek la kenn du ko forcé loof loo loof loof borom bu la borom loofu doo xàppi ak moom bu ngeen dëkkee sax doo kontaan ci jooy ngay dëkk fay ne di nga ñi nga njëkk def lu bon ak di la yuus nga yërëm sa bopp di jooy di xaddi waaye kii ah ni may def ah kii ni may def balaa caag doo baam muy góor walla jigéen ngir yàlla ñu nit ku ñuul nañ jàng di gëm suñ bopp loolu rekk mooy jeexal loof yu bon yi lii ma koy wax bala maa dem soo gëmee sa bopp góor walla jigéen di cuus nit because kooku mën ngaa dem ak moom gis nga ne seen xat yi sori xante wut gis nga ne xalu seen nuroo daal fa xaw a jege wuutewu leen torop mel ni démb ak daaw nga xool borom ni muy defee yow nga xam ndax intérêt la toppee wala natural soo gisee ne natural la nga dugg soo duggee nga def ndànk ndànk ndank ndànk ba nga fiil ne toogu bi dëgër na nga soog a bàyyandi ko you mooy ne bul tëb rek di spend ay million xaaral bam bam leeral ne toogu bi nga toog dëgër na nga soog a bàyyandi muy góor walla jigéen bul di force loof ngir ne ngaa bañ nit ñi xas la su tasee fa fañ lay xas walla nàngam nit ñi xam nga luy garabi xaste yi nit ñi xas nit ñi surtout jigéen moom fa tas tasaar fa bon xam nga luy garabi xaste yi nit ñi continuer di tas ku war a tas ku ne loolu rek mooy garab yi xaste yi fañ koy def pour nit ñi buñ tas ñu toog di dee ñoo la gën a gis njaaloo meeg toroxal sëy yi ne ci sëy góor ñi di ko def ñoom ñu bëri ak jigéen ñi nga xam ne sax a mënuñoo see ñoom ci seen bopp xam na waaye góor ñi mënta see ci askan wi mu ëpp jigéen ñi mënta sëy fuuf ku ko waxut fa naa fekk te bañ jigéen jigéen ñi nag xam na ñoo xam ne ñoo seen ennemi bopp nag léegi tey ñu jóg di lay lay ne waruma wax loolu jigéen ñi pigme yi naa fekk fa ñuy jaay baax de mu ngi xasati góor yi de lu mu waaree xas góor yi te kat mu ngay dee ndi góor ñi wala xaritam yi mbokkam yëpp di dee ngir góor ñi mu gis ko ne fàtte wala yaayam deexoon ay xat ngir góor <laughs> mu ñëw taxaw ne teg nag ni jinne ju si butu ne feewu ne man man lu ma wax rek góor yi de mais ni man may fen ci ngelaw maa ngi ñëw tëddi guys taxawal ma seet kii lu mu bind maa ngi tëddi salaam xam ma lu time def suba iskul la dégg ngeen ko na kenn ku ne def boppam nit ñi bugg suñ bopp gëm suñ bopp lekk-lekk yu baax yëngatu doxal dëgg kenn ku ne xaar soo jullee ñaan wala foo toog ñaan yal na ma yàlla may jëkkër ju baax yal na ma yàlla may jabar ju baax joxane fañ buggante te xam jàmm te bu dee nga xam jabar foo ko sal sa jabar mu nekk sa xarit sooy xam ñaareel nga foo ko sa jabar rek te teg sa time te bul dem si ñaareel topp ko ngir xees na ñuul na kàpp yi mel na nii ween yi mel na nii bët yi mel na nii non seetal ñaareel bi because nopp na la sooy hut yooyu sax nga hut loolu ci ku la nopp loolu mën naa xam maanaam su dee jigéen bu xees nga bëgg ah jigéen bu xees bu la nopp loolu mën naa xam waaye fay jafe for exemple su fekkee yow nga ne comme boo melee ni man man maa ne góor gu euh, njool ba ba ba sut ma tuuti moom laay wut wala ko xam ne man boobu waaye ku ma sut tuuti te góor gi du nekk góori seen waa te góor gi nekk góor gu bon wala biit bi xam ne Macky Sall wala bon jox yooyu yëpp laay bañ daal for exemple mbon geeg biita Macky Sall beeg góor goo xam ne fa xam ni man taxaw wala ma sut ko wala góor ak seen ñeenti yooyu yëpp ma koy bañ for exemple man Amie Olof léegi man li ma bugg duut ne man taxam man naa xam waaye fa jafe bi ko yeneen yi nga xam ne moom laa buggut moo bëri fa wutee jigéen joxe ne ku ñëw rek mu jël la noo mel baax na nangam nanga ñu léegi yow tam soo waxee ne xees nga bugg par exemple mën ngaa xam ko xees waaye ku xees koo xam ne fa xees ngay wut bul wut ko xeesal koo xeesut fa xeesal xeesut te xeesal bi fa koy feebar te xeesal bi fa ñaaw te fa koy feebar looloo tax nga topp ko wéetoo waroo fa topp ko xeesal jëlal ko xees comment yi nu ma koy riidee te maa ngi wax thank you so much love you too waaye duma ko mën a riid maa ngi wax xanaa ma pare taxawal ma pare li may wax jërëgéen jëf thank you yow suma askan bu feebar bi la man ne si di wax ba sama bopp bi metti nga naan ma riidal comment ku tal riidam comment ci lii aja lu ma doon waxati sax su dee ko xees nga bugg hutal ko xees natural bul hut ko xeesal yéen góori askan bi yéen a mën a jeexal xeesal bi su ngeen taxawoon ne jigéen ju xeesal rek duñ ko jël ñëpp danañ ba xeesal ñu bëri billaay wallaay tallaay xam nga tax gune yu bëri di xeesal xeesal bu ñaaw bu tilim bu salte buy joxe feebar bi ak saaga sa bopp saaga sa maam yépp saaga gune yu ñuul yi ci askan bi yépp xam nga tax nit ñi di ko def maasi milliard milliards yi kii xam ngir fa xees kii du kii rek la lekk de kii maasam yi fañ yàggal lekk ay milliards ci góor jot bi ko fañ xees kii onot barki salaatu faatiha kii xam na gune ne ci askan bi ñoo xam ne ñoo ko dàq foofu waaye just because moom fa xees mooy tax maasi kii jox ko ay milliards romb gune yu ñuul yi mel ni moom kulóoram bi gune yu ko xamee mu romb leen maasam yi du moom rek yéen ñu bari yéen a mel noonu seen bañ seen bopp gi nit ku ñuuli Amérique yi sax fañ koy wax dafa daw yaram fa ñuy def vidéo nii tiktok ak fu ne di ko wax ne suñu xàndeeg seen xam nga nit ku ñuul Amérique fa xam ñu xees mel nii xam ñu ñu gën a xees ki wala ñu gën a ñuul kii tuuti wala ñu ñuul ba mel ni man ak ñu ma gën a ñuul fa ñuy wax ne ñoom bu ñu xàndee dem dem club wala dem pati wala xànd dem fenn daal ku xees ki moom la góor ñi ñëpp di ñëw xuy si topp ko bàyyi leen ñoom ñu ñuul su dee ñoo dàq kook sax li ñaaw na fañ ciy mer ba di ci def vidéo di wax ni ñi nuñ bañee ñuul te ñoom bugg ñoo xeesal te ñuulaay bi ñun suñ maam yi noonu lañ mel yéen góor yi nit ku ñu war ngeen a xaru de yéen ñaamee jikko ju bon ji yëpp mboolem lu yàqu Afrique góor ñaa koy yàq góor yi ku ñuul mooy yàq Afrique maa ngi wax lii bala maa dem dóor yu bon yi lu yàqu góor ñaa koy yàq góor yi ku ñuul mooy yàq Afrique maa ngi wax lii bala maa dem dóor yu bon yi